asalaamaaleykum sama gars yi man la Malick Dieng ñëw rek di leen passé information bu doy waar Bara Cissé léegi la ma ko wax Babacar Endo daal moo décédé quoi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un maa ngi jot information bi léegi lépp lu ci kii rek dinaa leen ko wax dinaa leen ko yónnee ma maa ngi dellu si waat donc di leen jéggalu je suis sous le choc quoi moo tax may may waxi nii maa ngi jéggalu bu baax donc suñu frère suñu frère Babacar Endo est décédé xam naa Bara dina ñëw gën ñoo jox bo yeneen information mais maa ngi jéem a jokkook Sénégal lépp lu ma ci am rek dinaa leen ko wax parce que xëyoon na tey moom y a eu des problèmes donc il est décédé quoi donc loolu moom mooy xibaar bi nga xam ne xibaar bu metti la pour l'ensemble de ce forum c'est un frère gars yi ngeen baal ma man fi mu nekk nii je ne peux plus me contrôler mais lu metti la quoi jërëjëf
Wow, wow, wow. This is Alright.
inna lillahi wa inna ilayhi rajiun inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ah yéy yéy ah Malick lii gaaw na de lii daa gaaw lii gaaw na Babacar Endo ngi fii semaine bii nii dugg ci kii bi forom bi keroog ah déedéet lii mënut a gaaw a nekk nii de allahu akbar man de xawma lu may wax sax maa ngi gaawee ñu gaawee ñu gaawee ñu gaawee ñu gaawee ñu gaawee ñu
information yi ma jot moom mooy dañ ko agressé dañ ko agressé donc Bara maa ngi coordonné ak Bara Cissé Bara Cissé mi ngi Sénégal maa ngi coordonné ak moom quoi mais Bakar moom moo génn àdduna loolu na ko ñëpp ñaanal metti na mais nous qui sommes à l'extérieur nous serons toujours dans ces conditions nous serons toujours dans ces conditions d'agression de maladie loin de notre famille loin de notre famille donc Baba Baba Babacar Endo s'en est allé dem na ñoom ñoo ma woo wax ma ko ñoom ñoo ma woo wax ma ko soo dañ ma laaj naa leen lan la ñu ne bu xëyoon na ba kii ne dañ ko agressé bon bu information yu gën a ample nag xam naa ne dinaa ko am ca kanam mais lu ma ci xam rek dinaa leen ko yónnee jërë ngeen jëf.
fii Sénégal affaire bi affaire bi amul doole quoi ligne bi moo amul doole moo tax affaire bi moo amul doole moo tax ma mën a xaar envoyé ko audio nii quoi waaw li yéeme la de waaw te xëyoon na kat xëyoon xëyoon na de waaw xëy na de moom koy léegi la léegi la affaire am nii waaw li nga daal benn waaye ko agressé daal waaw waaw mu faatu mu faatu.
waaw salaamaaleykum from Allo rajo Dakar ctt Pape Malick looy wax nii loolu moom doy na waat di mu ne dañ ko agressé oh non
information sànq laa ko laa ko laa ko am quoi ci heure Sénégal boobu mi ngi ay xam naa ay huit heures yooyu moo jot boobu mais li ma dégg daal dégg naa daal xam naa daal comme loolu liggéeyee xam naa dafa comme lu doon xuloo comme lu doon xeex daal waaw yaakaar naa daal benn colombiano la la la la jàppanteel mu jëm ko ay paaka waaye ci li ma déggul nii quoi moom moom laa jotee xibaar bi daal ñu ko lu yéeme kay wax dëgg yàlla waaw ñu ko lu yéeme ñu ngi daal benn colombiano la jàppanteel xam nga lu mu jotee ñoom ñaar nag xam naa lu suwaa laa ci gën a am lu leer nañ quoi parce que moom benn rakam ba nga fa man mu njëkk ma laa fa laa njëkkoon a nekk nekk noonu waaw mais après na fa jógee nag ñetti at yi ci ginnaaw ñëw ñëw capital Argentina Buenos Aires xam naa su dana dana kii dana gën a leer daal affaire bi nu mu demee noonu quoi dégg naa dina benn colombian la jàppanteel xam lu mu jot nag am jam ko après jam sax yéegi danga fatul quoi mais après li mu gën ci deret moo moo moo bari trop après ñu ko yóbbu hôpital mu mu mu mu desee mu gaañu waaw te xëy yoon sax waaw lu métti lu doy waar sax
asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp inna lillahi wa inna ilayhi rajiun amoom doy na waar doy na waar man xam ma sax du may wax waaw maa ngi masawu ñëpp waaye imam maa ngi masawu ñëpp tout le monde est sous le choc waaju jàmbaar de waaju jàmbaar dem na waaju jàmbaar déglu lay waxam tout le temps maa ngi ci market bi maa ngi dem voilà client yi customer ne la boobu ba léegi dugguma ci forum bi ndax euh,
salaamaaleykum yéen waa Dakar man la Bakar Endo siyaar naa leen bu baax a baax a baax a baax naka dem ba tey maa ngi doon bëgg a dugg de naka dem ba tey maa ngi doon bëgg a dugg daal waaye daal gars yi liggéey sama wët fii daal dañoo metti trop liggéey bi dafa am doole trop moo tax xam naa coowul liggéey bi moo ma sonal na ko coowul liggéey li fii daal moo ma moo ma moo ma coupé na ko coowul liggéey li fii daal moo tax xam naa sama audio yi naan lañ ko dégg wala déet dem ba tey maa ngi bëgg a dugg daal waaye gars yi seen liggéey dafa am doole trop fii na ko seen liggéey daa am doole trop waaw seen liggéey daa am trop fii xam naa coowul machine li moom da ko bëgg di wax dem gars yi wax ji la maa leen nuyu yëpp la di nuyu Faye micro ouvert Touré Mbos Cisco Jaam Jaam bu Macky Sall kii kan la Abdou Aziz Abdou Aziz yar naa la waay dara tires waaye ma nuyu gars yi rek jéem sama machine bi moom doom doom maa sonal ma nuyu rek Maodo Mandela Serigne Seck nuyuwaat Jaam ñii ñëpp rek xam naa liggéey fii daal moom ma xaw a sonal moo tax pour ma dugg eh ba su Toma Babacar siyaar naa la waay dafa am dool trop bu machine bi fii salaamaaleykum yéen waa Dakar man la Bakar Endo siyaar naa leen bu baax a baax a baax a baax naka dem ba tey maa ngi doon bëgg a dugg de naka dem ba tey maa ngi doon bëgg a dugg daal waaye daal gars yi liggéey sama wët fii daal dañoo metti trop liggéey bi dafa am doole trop moo tax xam naa coowul liggéey bi moo ma sonal na ko coowul liggéey li fii daal moo ma moo ma moo ma coupé na ko coowul liggéey li fii daal moo tax xam naa sama audio yi naan lañ ko dégg wala déet dem ba tey maa ngi bëgg a dugg daal waaye gars yi seen liggéey dafa am doole trop fii na ko seen liggéey dafa am doole trop waaw seen liggéey daa am trop fii xam naa coowul machine li moom da ko bëgg di wax dem gars yi wax ji la maa leen nuyu yëpp la di nuyu Faye micro ouvert Touré Mbos Cisco Jaam Jaam bu Macky Sall kii kan la Abdou Aziz Abdou Aziz yar naa la waay dara tires waaye ma nuyu gars yi rek jéem sama machine bi moom doom doom maa sonal ma nuyu rek Maodo Mandela Serigne Seck nuyuwaat jàmm ñii ñëpp rek xam naa liggéey fii daal moom ma xaw a sonal moo tax pour ma dugg eh ba su Toma Babacar siyaar naa la waay dafa am dool trop bu machine bi fii
salaamaaleykum di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun Malick Malick ki gën naq nool bu naqaree naqaree naqaree naqaree bett lool lool lool lool lool lool lool yéeme lool lool lool lool lool lool ah yii dafay noos te yàlla kenn xamul kañ la ak fan la ak naka la ah doy na waar doy na waar metti na lool metti na lool lool lool lool waa groupe
inna lillahi wa inna ilayhi rajiun inna lillahi wa inna ilayhi rajiun grand Malick yàlla xam ne maa ngi doon di pare reer nii di déglu audio yi ma dugal sax di tooñ ji bi dugal benn kii maa ngi doon déglu li nii est-ce que c'est vérifié inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yàlla xam ne fan yi may dem si saal bi rek si jéem bi am na ku ma gis ma ne kii moo niroog baa ko indi si photo bi muy dugal suñu profile bi dama ko bëggoon a filmer sax pour yónnee ko ko wallaahi.
asalaamaaleykum sama gaañ yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ma dama leen doon ñaan rek s'il vous plaît am tey ak suba vraiment ñu teg fële doxinu àdduna yeeg yooyu yëpp ñu focus ci suñu mbokk mi génn àdduna quoi parce que je ne vois pas nous avons tout le temps pour wax après de li ngeen bëgg mais tey ji ñu suturaal bis bi ak suba defe naa ne moom moo gën a moo gën a nice quoi li wax jàmm yàlla xam naa da nga ko yëgul moo tax nga dugal lool nga wax ne we don't care ak ki yëg yooyu xam naa da nga ko yëgul mais Babacar Endo moom moo génn àdduna quoi jërëjëf moo tax man ma dindi maa ko dindi quoi maa dindi loolu nga dugal.
salaamaaleykum salaamaaleykum man la Babacar Endo leen nuyu bu baax a baax di leen siyaar bu baax di leen siyaar bu baax a baax nag di kontaan ci yéen bu baax xam naa man moom jëm temps yi moom ñu ngi ci ay élection yu mag wóoru gaa yi ñu ngi jub ay élection yu mag daal moom dama leen di bàyyi ak seen politique yéen a ngi wax ci xam nga liste yi ñu wax liste yi nuñ ko nuñ ko nuñ ko sa waay bind fii sax da ko Pape Daouda Sène suy naa leen yéen ñëpp de xam naa damay jéglu ci tur yi Pape Daouda Sène rek laay nuyu mu yóbbul ma ko ci kaw publication de la liste liste ta liste yi liste ta TV ah yesta lan moo ci waxtaan wi lan ngeen ci xalaat yaakaar noonu la wax de ah sur la position de liste application ah daal ma baal ma bàyyi leen man moo xam naa moo cee bëriwul xam-xam mais dama leen nuyu rek dama leen gëj a dégg rek namm leen yéen waa Allo Dakar ma ne ko yéen waa Allo Dakar dama leen a gëj a dégg trop di leen namm nag di leen seer bu baax na time politique bi rek saf sap ci Allo Dakar mais noonu la nag time jàpp jamono bu nekk time waaw jamono bu nekk la mu laaj jamono bii moom saf sap ci politique bi dafay am solo trop dafay neex. waaye nag man barki dem damay dégg lu lu ma déggati Macky Sall jaam nag laa war a laaj jaamu yàlla ñoom laa koy laaj nag xanaa.
waaw asalaamaaleykum waa Allo Dakar man de Mr Ndoye waaw maa ngi nuyu ñëpp waay waaye di bokk bokk ak yéen ndax rek liste bi ñu am tey baa ko indu di ko ñaanal fu mu jëm yàlla na ko yàlla yóbbu àjjana fi dossier yàlla na ko yërëm jégal ko bépp lépp lu mos a def si kaw suuf yàlla na ko yàlla jégal. yëpp ko ci àjjana yi kaw yi àjjana fi def si dara Seydina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waaw àddina mi ngi nii àddina moom fi mu kenn dëkk fi daal waaw kenn dëkk fi bàyyiwul xale bàyyiwul mag bàyyiwul kenn ñaan nag ñu ñu des gi ñëw yàlla bàyyi ba si kanam kanam yu ñëpp koy yàlla ñu bàyyi fi ñëpp daal ba si kanam kanam yàlla na fi yéex nag yàlla na fi gëj waaye di ko ñaanal fa mu jëm daal yàlla na ko yàlla yóbbu àjjana fi def si te am nañu am nañu yaakaar sax parce que képp ku ñu rey moom képp ku ñu boom rek moom maanaam genre kii nga quoi comme comme genre jiyaat comme comme da ngay jiyaat surtout bu fekk si si liggéey yooyu bu fekk si liggéey ngay daan doole ngay daan ngay daan ngay daan doole ñu fekk si place boom la boole ci donc am nañu yaakaar bu baax a baax si moom yàlla yàlla yërëm ko jéggal ko lépp lu ma si def si kaw suuf si ñu ñu fekk ñëpp. Seydina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waaw maa ngi koy jaale groupe yëpp di ko jaale mbokkam yi ndeysaan métti métti la soxnaam ak mbokkam yi di ko ñaanal ñun Sénégal Sénégal yëpp daal di ko jaal su di ko aussi jaal forum bi yëpp métti métti la waaye nag àddina nii la mel àddina àddina ngi dal fii moom nii rek la waaw non yàlla yàlla yéex rek yàlla yéex rek moo fi des mais bakkan bu mos dund dina mos dee waaw képp ku mos mos dund daal fa nga mos dee yàlla yéex nag yàlla yàlla mi ñëpp ñu dem ba màggat ñëpp waaw ba may cent dix ans cent vingt ans ñu ñëpp dal yàlla ko def ba ñu gis suñu sursitaat ñëpp incha allah yàlla ko def amiin waay
allahu akbar allahu akbar inna lillahi wa inna ilayhi rajiun Babacar Endo Babacar Endo non ci àdduna non nouvelle bi naqari na Malick allahu akbar laa ilaha illallah salaamaaleykum waa forum Allo Dakar man de Malick bugguma sax mu- mu- message sa message li ma ko déglu ba pare delluwaat ca kaw ak kaw ak kaw ak kaw depuis yu yàgg yi sax di dégluwaat di wàcc parce que yu bari daf ma rëcc. yéen té té té té ah, kon kay Babacar dañ ko rey kon kii du du mort naturel. oh la la la la la la la. oh my god. ah man de I can believe it mu ma ko kii waaye Baara Cissé de ah Baara nañu wax ñu koy na am aussi xëy na deewul sax xëy na dañ ko gaañ wala yooyu rek mu kii allahu akbar ay waay moo tax àddina bi daal yal nañu yàlla dafa sutura daal ah kenn du ci rëcc de waaye lii de oh my god oh là là Bakar Indo de xanaa xanaa accident la wala ñu rey ko parce que lii moom mënul nekk moom c'est c'est man de man de xaw ma lan la je ne sens je ne sens rien daal daal tuy na waar tuy na waar tuy na waar oh là là Bakar Indo de man de xaw ma man de lii man gëmuma ko sax Malick daal man maa ngi yem ci sa message ba rek fa laa yem taxaw mel na dañuy ne xëy na di ngay duggaat wax leneen mais lii moom doy na waar parce que indi day du dee bu naturel de te xam naa ne di ku ko mën a rey wala nga kii ko ah dëgg dëgg dëgg dëgg jàmbaar la de du woon ragal de du woon ragal de xam naa ne lu ko daal budul accident dina oh la la la la la ay waay yàlla lii de moo tax billaahi ñu war di delloo suñu xel toujours ci yàlla xam ne lu ne fu ne mën na fa amee ak nu nekk rek mën na ko amee oh la la
salaamaaleykum aji maa ngi lay ziar bu baax waaw dañ ko dañ ko rey ab Colombie ay Colombien ñoom ñoo ko rey te xëyoon na ba di liggéey dañ ko jàpp dañ ko kiyee nag dew ci saa si quoi mais il a perdu beaucoup de sang bi ñuy àgg hôpital la décédé quoi mais ay Colombien la ñoom ñoo ko agressé dañ ko fekk ci place am agressé ko jamat ko loolu la quoi mais yal na ko yàlla xaree àjjana yal na ko yàlla xaree àjjana thank you so much Adja
waaw Malick waaye lii moom kon c'est une nouvelle qui se confirme lii metti na de wallaahi be- du nekk benn colombien de de Babacar day xam naa ne bu ko benn nit bëggoon rey ah xanaa nga yore fet fetal oh ah, lii metti na ndeysaan ku bëgg bëgg bëgg bëgg famille ñam jàmbaar di daw lu mu wax sama yaay sama yaay ndeysaan oh ak keroog rek maa ngi ko daan ba Babacar sa doom bi may xalaat nii bu ñu ko yóbbu woon fële est-ce que du kii ndeysaan après ma toog ma ne eh, man di sama xel maa ngi naan sama xel de man di dégguma sa Babacar tontu ma mbaa du xam nga léetam nga laaj question boo xam ne dafay toucher nit ci loo xam ne moom ci boppam mi ngi ko doon xalaat oh là là vraiment jàmbaar ku ku intelligent nag intelligent intelligent tous dama ko daan wax ma ne ko bu jóg bu avant ndeysaan lu ne nii mu ne ah man xam ngeen jànguma xamuma ma ne ko yow lu question jàng ak xam tu poses des questions très très très pertinentes ndeysaan ak bëgg indu yi lu ne nii ma ne ko ana kabi kabi oh lolo ah Lord
asalaamaaleykum wa rahmatullah allo Dakar Euh, ñëw dellu si fii di ñëwaat ci groupe bi ak jaxasoo lool sax nag di enregistré muy jaxasoo ci xabaar bii ñu déggee ci sunu groupe bii groupe Allo Dakar groupe famille muy xabaar bu méttee méttee méttee métti bu diis lool lool lool lool ñu dellu di wax nag inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ci Babacar Inde moomu ku ko daan dégg xam ni jàmbaar la liggéeykat la borom jom la waaye lii nag la yàlla tudd ah xam naa ni bu fekkoon ni doomu aadama koy tànn kenn ci ñun du tànn lii li ko dal dal ko tey waaye nag yàlla mooy def lu ko soob ñett yi moo ko yoreel boppam jox ko kenn ci ñun. mata ayna wa kayfa kañ la ak fan la ak nan lay xewee kooku umpan na jaam yàlla rek moo ko seeral boppam di ñaanal Babacar Endo yàlla na dee di nooflaayam yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko àjjana yàlla na jafe-jafem yëpp yem ci kaw suuf bi jaahi seydil wujud sallallahu taala alayhi wa sallam xam naa ñu yemagum foofu ba gën ci am ay ay renseignement waaye xol xol metti na lool lool lool lool lool lool lool asalaamaaleykum wa rahmatullah
asalaamaaleykum famille rajo Allo Dakar Euh, waaye xibaar bi moom mi- ki lii doy na war di ay waay waay waay Babacar Endo waay ay waay nit ku baax dem na waay nit ku intelligent nit ku baax nit ku oyof nit ku bëgg sénégalais nit ku bëgg boppam bëgg Sénégal bokkoon ci sunu famille bi dafa mel ni sama frère lañu rey quoi Et sama frère la ñu rey a- affaire bi oh là là là là ay waay quelle nouvelle ay waay Bakar Endo waay oh ay waay colombiens yi yàq nañu ruux waay yàq nañu ruux bu am njariñ ku am njariñ ku am njariñ dem na maa ngi leen di ko jaal yéen ñëpp yal na ko yàlla teral ci ajjanaam ji gën a kawe dafa demoo dafa ñëwoon wut si rek ndeysaan ay ay ay ay ay ah je suis troublé ci fi mu ne dama jaxasoo complètement complètement complètement ay waay Bakar Endo waay maa ngi leen koy jaale yéen ñëpp lan lañ koy jaale yal na ko yàlla teral ci àjjanam ji gën a kawe oh la la la la la la quel gâchis ay ay ay ay ay ay ay waay seytaane bari doole waay
billaay man moo di sànq ba tey maa ngi naan man daal yëgu je ne sais- je ne sens rien parce que dama ñëw tëdd ne naa noppal tuuti rek jékki-jékki dégg nu- naa xool du dégg nouvelle bi mais I wasn't feeling anything léegi ni ma la déggee nii yow nga naan sama frère la ñu rey ah affaire bi dafa dafa commencé di nekk réalité ci man et ça me ça me ça me touche ça léegi nag moom maa ngi sentir ne que c'est réel parce que vraiment da ngay jooy ndax di dafa metti c'est quelqu'un quelqu'un qui avait beaucoup beaucoup beaucoup de de projet de vie moo di li nga wax ci Bakar Endo rek intelligent maa ngi fàttaliku bi muy door a commencé dugg ci groupe bi ak Maretu ak Maretu ndaw ndeysaan boobu ñu ma ne ko Babacar mu ne ma waaw ma ne ko bàyyil di wax ay jàngu tu es intelligent Babacar man sa intelligence daf ma neex say question dama koy oh la la la la moo di man di man man daal man li metti na ma te colombien yi dégg ma ne keroog rek la ma benn xale ci ñu jóge Nicaragua di wax ni colombien yi soxale ak ni ñu leen di sonnale bu dee côté boobu lañ jaar oh là là mais man de man man de c'est-à-dire man man je ne comprends même pas maa ngi maa ngi ne las parce que fan yii rek passé comme ni may yéexee déglu ay affaire rek mën naa taal déglu ba yem ci moom mu dugal audio yu bari ma taal ko nii di di xaar benn rendez-vous bu ma amoon di ko oh oh Lord have mercy waay waay waay waay euh, jàmbaar la. et il comprenait l'environnement dans lequel il vivait liggéey wàcc bu lay waxtaana li muy wax seen waa koñ yi waa kër yi naka la ñuy defaree dëkk yi naka oh, Babacar intelligent yal na ko yàlla xare àjjana metti na de metti na torop torop torop sax Malick kon da ngeen ko gisoon démb ci six heures trente pm ah li metti na li metti na Oh, my gosh, metti na trop. allahu akbar
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un man nag ñu déglu message Malick mu def mel ni gàtt lañ ma door rek lii moom fi mu toll nii diis lu mu diis naqar bi moo naqar lu la bett rek moom ndekete vraiment lu la bett rek man la quoi ah tëdd tëdd yal na ko yàlla xare ak janna ci barke Muhammad alayhi salaatu wasalaam man fi mu toll nii amatuma wax sax fi mu toll nii sama yaram yëpp a sama yaram yëpp a jaxasoo
asalaamaaleykum sama gaañ yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp mais dama leen doon ñaan rek s'il vous plaît am tey ak suba vraiment ñu teg fële doxinu àdduna yeeg yooyu yëpp ñu focus ci sunu mbokk mi génn àdduna quoi. parce que je ne vois pas nous avons tout le temps pour wax après de li ngeen bëgg mais tey jii ñu suturaal bis bi ak suba defe naa ne moom moo gën a. moo gën a nice quoi li wax jàmm yàlla xam naa da nga ko yëgul moo tax nga dugal lool nga wax ne we don't care ak ki yëg yooyu xam naa da nga ko yëgul mais Babacar Endo moom moo génn àdduna quoi jërëjëf moo tax man ma dindi maa ko dindi quoi maa dindi loolu nga dugal.
waaw asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp rek di jaare ñëpp aussi ci nouvelle bi wàcc ci forum bi tey. di wax ne rek même chose que li Papis wax sànq Bakary Ndossa yoo ko déggee rek waxu mu ngi ci waar wi mu ngi ci waar wi tout le temps mu ngi ci waar wi ku jàmbaare ngir yee dëgg di ñaan yàlla mu xaare ko aljanna yàlla yërëm ko jégal ko ay bàkkaaram yàlla may ñun ñëpp xolu muñu aussi waaw doy na waar trop doy na waar trop trop trop
Pape Daouda Sène Pape Daouda siyaar nañ la waa lépp jàmm ne ko siyaar nañ la siyaar nañ la siyaar nañ la waa lépp jàmm ne ko mbaa lépp jàmm waay ah xam nga rek xam nga xam nga non waxtaan wi maa ngi doon waxtaan ak Papis sax bëggoon naa ko jëlaat mais xam nga fii ñaare da ngay toll période boo xam di nga joxe sa kàddu ne dama bëgg a wax ci suur bii suur ba ñëw fekk nga benn luuma am wala nga am ci loo dal wala ci te fii xam damay damay dox rek damay wër rek ñaar damay ne fii suba ma ne fële gannaaw suba ma ne fële fi may nekk moo bokkut moo tax ni may daw fii dafa dafay bëri jaxas loolu daf may jaxase waaw damay dem nii ñaare ma def lii ñaare ma def lii ñaare ma ne ci voyage bu tombeek nag ma ne ci voyage xam nga bëgguma faussé jël dara bu pare xam nga bëgg ko continuer bëgg ko bëgg ko joxe ni nga ko bëggee te da ngay toll daanaka boo seetloo dinaa def ay ay heures yoo xam ne daanaka damay dugg rek dugal kàddu rek génnaat loolu nag bu fekkee da nga am programme boo xam ne da nga ko def spécial ni dugal ko ba pare nit ñi war a waxtaan xam nga nga dugal say jaari audio rek dem sa yoon loolu xam nga du rafet te doo mën a toute la journée nga ne ci da nga occupé bi ngay occupé moo tax loolu loolu rek la moo tax ma xaw ko ma xaw ko wàññi ndax wax naa ko woon Papis maanaam jo jël benn suur di ko di ko continuer débat xam nga ne ci programme yu bëri comme ni ma la ko expliqué nii rek moo ma xaw a jaaxal trop ci affaire yi moo tax ma ma xool ko côté bu demee mu jafe lundi bi ma foogoon day yomb sax daanaka du yomb ci man lundi bi daanaka damay xëy yi ma war a def ci semaine bi yëpp ma daw yenn yi may lijjanti daw lijjanti lijjanti daanaka bala may toog rek daanaka muy guddi xam nga muy guddi. waaw daanaka bala may toog def muy gudd daanaka ay daanaka ay sept heures daanaka laay toog na ah daanaka toute la journée dama koy daw lundi bi moom tam moo tax dafay jafe trop trop trop trop trop pour ma ñëw dugaat andi programme moo tax bëgg man man waxtaan rek laa bëgg mais mooy loolu daal bëgg naa ko de mais dellu siwaat moom comme ni mu doon amee woon sax xam ma kañ la doon doon sax fàtte naa suur bi xam ma talaata la doon ne xam ma altane def sa alterné ma def waxtaan boobu moom yii dina jafe trop dina jafe trop billaahi wallaahi dina jafe trop ndax bëgguma faussé ndax naka sama rakk bi fii dafa moo ma doon dimbale ci yu bari mais moom temps yi xam nga rek dafa nekk ci luuma yeeg affaire yi amul jot daanaka day takk te ba amul jot pour dimbale ma ci yu bari man maay daw fee daw fee daw fee daanaka li may daw dafa bari trop daal loolu la de billaahi mais moom lu ngeen bëgg rek du du jàmm léegi man dinaa xoolaat dinaa xool nu ma koy nu ma koy jéem a kii balaa koor gi ma xool nu ma bu dee ñaari waxtaan fi ak koor gi ma def ko fi rek léegi moom ma mu bañ a doon lu may continuer bu jeexee tam après ñu pose ko rek ba def ko def waaw na dañ ko def sax we- benn yoon ci weer ñaari ñaar bëriwutoon sax ndax ñaari yoon la woon ci weer yi yaakaar naa ñaari yoon la bés la am ci weer yi mais amul benn problème am benn problème léegi moom dinaa xool nu ma ko mën a defee bu dee sax dama koy def benn yoon ak xaaj wala ñaari yoon ci weer yi comme ni ñu ko doon defee mu bañ a bari wala benn yoon ci weer yi mu bañ a bari waaw nu nu nu ko organiser rek amul benn problème nag dinaa jéem a xool léegi euh, pour mu mu bañ a bañ a wàññeeku mu mu programme bu ma ko xoolee. léegi joxe benn suur boo xam ne moom allah kulli àll dinaa ci mën a def débat waaw amul benn problème mais bëgg na waxtaan moom laa bëgg moom wax dëgg yàlla mais mooy loolu de wóor na yàlla ak moom yéen a gi wóor na yàlla alors Dakar moom lu koy yëngal rek lu koy doxal rek dama cay bëgg di participer mais loolu la ko ma sonal barki yàlla billaay ñaari damay ëm heure yoo xam ne gis ne dama ne fes daanaka dem bàyyi deux heures de temps kenn du ma dégg du ma dugg fekk damay ne ci leneen wallaay
waaw asalaamaaleykum waa kër gi di nuyu ñëpp di ñëw rek di masaw ñëpp ci li nga xam ne moom lañ fi dégg tey xim xibaar mooy sunu dëkkandoo sunu mbokk Babacar Endo ndeysaan dafa am ay jamono mu fi doon waxtaanee les lundis de Bakar mook papis papis a ko doon dalal mu doon nekk ay waxtaan yu neex ndeysaan ñëpp doon ko xaar léegi nag jamono yële ma ko toppaat ko ci mu ñëwaat ci waxtaan yooyu indiwaat les lundis de Bakar chaque deux semaines la doon def moom wax lii mu ne ma ak témoignage yi nga xam ne jot na fi jaar nit ki nga xam ne moos nit la ku bëgg li muy def mooy ku fo- ku bëgg liggéey naa liggéey rek buñ ko seddalee nit nit ku bëgg liggéey rek loolu rek daanaka doy na te da ngay dégg audio yi saa yi bu waxee rek mu ne la damay bëgg bu may ñëw waxtaan ci forum bi ma am jot libre may bëggu may dugg di génn ndax liggéey bu mu yor permettre ko mais non seulement que année yi yëpp Babacar Endo est toujours présent ci waxtaan yëpp ñu koy ñaanal rek sunu borom xaare ko àjjana yaram ko téexuñu maa ngi leen di massaw yéen ñëpp man tam maa ngi koy jéggalu sonaloon naa ko lool ndax lan lu dul dama gis nit ki supérieur am nit ki ni mu kawee woon ci waxtaan ak ci xam-xam dama doon dégg buy wax ma ne ko Babacar yow booy wax dafa mel ni comme may imaginer boog jamono yi may nekk xale suñu village sama maam toog di ñu waxtaanal xale yi ñëpp toog ci wetam ma ne ko loolu rek la may fàttali sa waxtaan mooy nit ñi lal basan toog kenn amul programme mu leer na ne jouru feet la ñëpp di waxtaan nit ñi toog di la déglu daanaka naa moom bu ñuy wax ci Babacar Endo kenn du fi jóge waaye lii c'était juste pour partager ko ak yéen pour doon ma leen wax rek mu ngi doon waajal waxtaan boo xam ne daf ko bëggoon a indiwaat ci forum bi mais yàlla nag moom moo def lii nga xam ne moom moo gën di ko ñaanal rek mu dallu ci jàmm ak salaam fa mu dem gënal ko àdduna bi mu jóge
ah waaye xibaar bi moom doy na waar de hmm? ah xibaar bi doy na waar moom de tey wax dëgg yàlla moom dama jàpp ba jéggi dayo lool waaye moom appétit ba la may tëdd moom dinaa déglu lu baree bari ci groupe bi mais bi ma déggee lii moom dëgg yàlla moom dafa dafa dafa dafa dafa doy waar lool lool lool lool lool lool lool sax waaye lool waaye ah Babacar waaye Babacar nit ku baax waaye man Babacar message na ma barki démb rek man day man damay ubbiwaat message bi sax di xool ndax kii Babacar la wala du moom di ma am lu may laaj fii Sénégal démb loolu démb la sax moom du barki démb sax loolu yaakaar naa démb la dam lu may laaj fii ci Sénégal ay affaire yu muy laajte man da man damaa waaru sax man fi mu nekk nii ah ah waaye lii doy na waar de dëgg dëgg dëgg dëgg lii doy na waar waaye ah
Salam alaikum. Il est 1h du matin ici. Depuis que j'ai tout retrouvé- entendu cette nouvelle, ah, ma première réaction, c'est de dire que dis-moi que c'est pas vrai. nan, nan, du dëgg. Ma toog di xaar, di xaar, di surveiller forum bi, di surveiller forum bi, di surveiller forum bi. Est-ce que dinaa dégg une nouvelle version, une autre version que Bakar n'est pas parti et on a pu le sauver? J'attendais, j'attends. Mais il me semble que ça se confirme davantage avec les personnes qui passent, les condoléances. Je n'arrive toujours pas à y croire. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut contre la volonté de Dieu? Mais Bakar est parti les armes à la main, quoi, parce que ñëpp dëgg lañ fait audio yi, mais audio bu njëkk nu ma wàccee. Et tu vois qu'il a dit liguer, liguer, liguer plusieurs fois, plusieurs fois. T'es coco dégg, muy naan mi ngi liggéey. Chaque fois, il est au boulot, en train de travailler. Un homme qui travaille, qui croit au boulot. Il a travaillé dur au Sénégal. C'est son passage au Kodégué, d'un école là. Cas, euh, il a fait la Casamance, hein. Euh, Gambie. Mais pour m'y immigrer à, mi- euh, Argentine. il avait une place spéciale dans le forum. Bakar, c'était celui où on ramenait, même sur au bon sujet. Si ça l'intéressait, il revenait toujours dessus. Tu développais, tu développais, tu développais. J'adorais écouter Bakar. Parce que Bakar, ça, euh, il avait maîtri- maîtrisé la rhétorique, quoi, l'art de vraiment, de bien parler, il faut maîtriser. Il faut maîtriser. Un gars qui était vraiment intelligent. Highly intelligent. Et puis cultiver, quoi, cultiver. Le plan de ce qui se passe dans son environnement. Un homme avisé. Un- vraiment un homme avisé. J'ai jamais raté les, bo- les audios de Bakar. Moussumoko raté. Et j'aimais bien quand il les alignait. J'aimais bien quand il les alignait. Moussoul offensé, dit. Il disait toujours ce qu'il pensait. Même s'il n'était pas d'accord avec toi, il avait sa façon de, de s'exprimer. Toujours avec le sourire. ak reetaanam ndeysaan un bon gars Sane Allé Bakar va manquer à ce forum cette femme cette grande famille il va beaucoup beaucoup nous manquer comme Kële aussi nous a manqué Mohamed Khairul Alamin yàlla na yàlla xare aljana ñoom ñëpp c'est deux c'est ils étaient Bakar était spécial, l'autre aussi, il était. Ouais, c'était une famille. Nous sommes vraiment une famille, tu le sens. Man, man, ama- après, nous va public. Nekuma, quoi. Nekuma. J'arrive pas. Et quoi? C'est trop tragique. C'est trop tragique. Il faut que Bara vienne. Bara, si c'est, il faut que tu nous expliques. L'allemand, il faut que tu nous expliques parce que, ah, God. il a perdu beaucoup de sens. Secours ignotel ñu voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que man, j'ai fait un- un- une émission avec Bakar, Saraba, Nessan. On a échangé, et puis, il est venu, euh, Momak, Hapakan, et ben, si c'est, on a présenté que c'était vraiment, c'était une belle journée et j'ai beaucoup appris de lui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on sait que l'Argentine, moom mooy dëkk boo xam ne, eh, ils ont voulu se débarrasser des Noirs. Ils l'ont fait de façon très atroce, très violente. N'est-ce pas? Mais secours ignotel le ñu, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça me rappelle un peu, eh, Ramarek, yu mel ni quand ça vient, tu, histoire de ridicule, quoi. Excusez-moi, il faut que je parle. J'ai envie de parler. J'ai envie de parler. Peut-être ça me fera du bien. Euh, back in the days, en 83, si je me souviens bien, il y a un membre du Touré Kunda, un membre du Touré Kunda, A- Amadou Touré. Amadou Touré, il est décédé en 83. Ils avaient un concert, un show, plutôt. Il a fait une crise. Il a fait une crise, mais euh, les frères ont dit, et tous ceux qui étaient autour, ils ont dit que secours, nous les secours étaient là, c'était un peu tard, ils sont venus tard, donc on pouvait le sauver. euh, Et Quand ils sont arrivés, bon, le banal que que cheminait vers l'hôpital, donc euh, il a rendu là. J'espère que c'est pas la même chose qui s'est passée, quoi. Donc euh, vraiment pas. Euh, Quelqu'un qui se vide de son sang, les sangs. C'est douloureux, c'est douloureux. Il ne mérite pas de ça. C'est un gars bien, un gars bien, euh, qui avait la joie de vivre. Bakar avait la joie de vivre. Bakar voulait vivre. Après, travailleur. Wolu lu muy def. Bëgg lu muy def. Euh, C'est sûr qu'il est parti avec plein de projets. Plein de projets. Plein de projets. Oh là là, c'est violent. Yann na day nekk noflaayam vraiment et présenter mes condoléances à toute la famille de du Forum Malo Dakar à sa famille à lui à ses amis qui sont en Argentine damay xool rek ses parents qui sont restés au pays son épouse ses en- s'il a des enfants la famille ñoom tss, ils vont pas dormir mënuñu nelaw c'est violent c'est plus que violent c'est dur Balen m'a ouais, balen m'a vraiment, je suis désolé. Mais j'avais envie de, de dire ces mots-là, t'es fan là, quoi, bah, pour Dolphy, quoi. C'est dans ce forum-là. Là, comme on aurait fait là, quoi, mais c'est comme, c'est quelqu'un, mousse au côté de but, mais c'est comme, c'est quelqu'un que tu connais. C'est ton frère, c'est un frère. Et il sera à jamais dans notre cœur, quoi, vraiment. Bakar Mam, on va jamais l'oublier. Jamais l'oublier. Qui repose en paix.
asalaamaaleykum waa from rajo Allo Dakar maa lay nuyu di leen jaar Babacar Diop la Italie ah waaye yéen c' inna lillahi wa inna ilayhi raji'un man de léegi laa déglu audio grand Malick bi rek dama sax faf toog c' te te te te te te te te àdduna du dara dara dara dara waaye Bakar waaye sama tooma ndeysaan kooku kii mu ngi ree mu ngi kaf mu ngi ci liggéey bi kërëb kërëb kërëb daw naa daw a daw a daw ba deyo ndeysaan moo tax nit looy daw rek yàlla na nga ko fekkee ndeysaan moo tax eh, àddina bi dara jaru fi dara nu ngi xiiroo bee ngaañoo bee jàppal bàyyi jàppal een jàppal lii kee moom a def lii yëpp jar jaru ko dara dara dara dara vraiment jàmbar dem na jàmbaru fàkk tëdd dem na jàmbaru fàkk tëdd dem na ku baax ku généreux ku amul xaaj ak seet ku amul parparloo ku amul dara ndeysaan koro rek bin ma invité si affaire yu géej gi mu ngi dugg di participer ndeysaan ah nga xam ne kii macha allah vraiment ah foo kii mu ne tooma tooma ndeysaan ca àddina àddina moo ñàkk solo li naan ku ne yaa tardé yow di naan ku naan yaa tardé ba mu ne àddina rek war ngaa xaru yi wallaay waaye xeet yi bon yi xeetu ay colombie xeetu uh, genre yooyu xeet yi bon lan ñoom loolu rek lan xam yu bon yooyu rek lan xam waaw yu bon yooyu rek lan xam yu bu rey nit waaw sàcc nga fekk gor soo xamante nii dafa ñëw pour daan dooleem pour dimbali ay njabootam booy juróom nga ñëw rek rey que nii ciment de faroo rey nga fa même reyoo ko moom rek franchement hmm, metti na day metti na wallaahi famille lu ma nga rey waaw reyuñu ko moom rek de moom famille bi yëpp lan rey parce que koo xamante ne soutien de famille la boo déggee ni mu doon waxee nga xam ne kii soutien de famille la kii ndeysaan du nelaw du noppalu guddeeg bëccëg mu ngi si si daw rek mu ngi si daw rek ba karande foo ko fekkee mu ngi ola ola ndeysaan di maa ngi si liggéey bi maa ngi si liggéey bi rek wallahi dama jàpp ndeysaan waaw Eh, yàlla na àjjana di këram yàlla na suñu borom eh, xaalis sa àjjana fi daw si gën a kawe di ko jaale ay mbokkam di ko jaale ay wéjuram ay famille am yëpp di ko jaale groupe bi yëpp groupe rajo Allo Dakar bi yëpp maa leen koy jaale si kaw ba suuf maa leen koy jaale di leen ko masawu vraiment ah, place bu rëy la amoon ci groupe bi fii waaw waxtaanam kaf ree bëgg indo audio bi moom joo déglu rek bi mu naan indo yi maa ngi waxtaan mais gis nga indo yaa ngi mu ngi teg ay indo si suuf mu ngi teg way indo si suuf ndeysaan ba benn jour sax ma maa ngi xalaat naan ba ka dinaa ko laaj eh, Amar Dani xam nga yooyu quoi film yi yàgg yooyu waaw ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na xippee sa àjjana fi dawsiya yàlla na mottalee ndawam sa àjjana fi dawsiya yàlla na bokk ak Seydina Muhammad jotaay yàlla na rëcc lu mu doon def ci àddina bii waaw yàlla na rëcc lu mu doon def ci àddina bii àddina bu ñàkk solo bii yàlla na rëccu waaw yàlla na rëccu lim lim fi doon def waaw yàlla na dee di noflaayam yàlla na sarax eh, yàgg sarax bi yàgg si mbokk ay mbokkam vraiment man to- toog naa lu yàgg di ko déglu ma ne est-ce que lii kii wuñu ko rek ah ah di ko di ko déglu rek maa ngi jéggalu ah maa ngi jéggalu xale yi doon biir waaw vraiment metti na metti na metti na fa metti di yem franchement parlé man dama naan sax est-ce que lii dëgg la est-ce que eh, kii gaañu na wala est-ce que du du- dafa xam wala yooyu da lay da- parce que affaire bi doo yow doo xam sax nan la lay da lay travail quoi franchement parlé waaw déglu ah doo xam quoi waaw moo tax nag eh, eh, immigré dafa metti waaw immigré dafa metti immigré dafa metti yow yaa ngi daw di uti xam nga eh, vraiment lii dafa metti yow yaa ngi daw dem uti tey ndeysaan metti na metti na metti na metti na di ko masew waa rajo Allo Dakar yi yëpp waaw góor ak jigéen mag ak ndaw waaw li ko dalee sec ñe sa groupe bi ba si suuf waaw Modibo eh, Grand Malick eh, Papis Diawara ak eh, Grand Lay ñàkk jaaxaan vraiment ba si suuf rek waaw Mm, di ko jaale ñëpp ñëpp ñëpp bàyyiwuma kenn franchement parler metti na lii moom yi nu ñu yewoo tey baaxul quoi soog la soog bu garaaw franchement parler vraiment jàmbaar dem na
asalaamaaleykum encore waa Allo Dakar bi daal audio message bi laa déglu léegi ma defe ne man ma ne waaw kay audio moom mi ngi exprimé sax man li muy yëg c'est-à-dire man benn genre dafa mel ni daal comme fra- vraiment si le monde s'est arrêté de c'est un coup daal c'est tragique comme tu as si bien dit c'est tragique ma di axe un homme intelligent man de bi ma koy door a xam ni door a dugg ci groupe bi rek ndeysaan benn bés xaw ma lu ma wax rek mu naan ah waaye yow yaa ajaa moom xaw ma lan ndeysaan maritu ne ma wuyul Babacar ndeysaan eh, oh là là j'ai eu bien le taquiné nag mu ne ne ah man man xam nga yéen moom borom xam-xam ma ne ko fii kay yow yaa fi ëpp xam-xam sa waxtaan neex na say question et puis di te daal di dafa meloon na jàngalekat sax il avait le sens de, de se faire comprendre am oh là là eh waay Bakar waay di sànn naa ne aw jóob bu ko déggee dina am lu ko metti ko aw jóob ñëpp ku ko dégg di nga am lu la metti dafa lakkaloon aw jóob léegi first lady ngoo kama keroog rek bi ma duggee gis dégg ku teg audio kii waaye nu mu tuddati waaye mbeng xayrulaa mi ndeysaan keroog sama àddina bi yëpp yëpp yëpp dafa jaxasoo billaay oh man daal ay waay lii yàlla na fi géej waaye bala bu mu fi sax amati eh Bakar Bakar day eh, jàmbaar day jàmbaar la de day buñ ko sotowulee duñ ko rey naa ne il a dû se défendre c'est pas quelqu'un qui se laisse agresser comme ça rek taxaw di leen xool il a dû se défendre ñu ñu overdo ko rek xam nga espagnol wuy ils se battent pas euh, corps à corps kenn ak kenn ils sont toujours en groupe des gens qui n'ont rien compris. Et puis, vraiment, il aimait sa famille, il aime sa famille. loo wax man bu ne sama yaay sama yaay rek sama yaram bi dafay daw billaahi ah waay Babacar waaye ca yàlla boo koy déglu léeg-léeg sax buy wax indu yaa ngi way ci gannaaw bopp masa leen yéen ñëpp ah mais man di sama trop secoué et dama doon def ni ma toog ba yàgg mu ne noonu lii xaaral ma ubbiwaat groupe bi seet ba xam mën na am ça a été quelque chose boo xam ne demeewul ni ñu ko waxee daal mais là au fur et à mesure ngay dem xam ne que c' est confirmé loolu moo ñu metti naa dinañ jéem a xam ne ñu def ba am joindre sa famille certainement sa femme ak yaayam ñu jéem a seet nu ñuy def rek ah ma ne ko nu ñuy def rek ah kii oh là là. participer ci xanaa xam naa ni ils m'ont envoyé amener le corps yow après on verra ak Malick ak yéen ñëpp ñoom papis loo leen wax rek tenir nous au courant parce que lii rek moo tax ay nit di ànd groupe la ñu oof lool lool lool waaw mais Aude li nga wax noonu tamit Argentine gaa moom ñëpp xam nañ ko ils ont se sont séparés des noirs d'une façon très très dama xaw ma ñoom sax naka lañ fa nekkee noonu mu ko doon xalaat tout le temps et secours yi ñoo dul ñëw bu dee États-Unis gi nga xam ne maximum deux minutes parce que démb rek semaine semaine passée dama ànd ak xale yi ñu génn ndeysaan rek mu ak un couple avec leurs enfants ne xale yi ndeysaan neuf ans huit ans ne maam aji ñun fii koñ boo jaar rek am na fire station fire station ma ne waaw loolu moo tax bu ñu leen woowee dañu teel a ñëw ñëwulee ñeneen dinañ ñëw donc fii secours bi dafa gaaw man di bés maa ngi tooñ ndeysaan benn ku fi ñëwee mu ne ah Amérique daal xam naa ne nit ñi dañuy raw secours yi dañuy rawante ak malaaka mawti ne ko ah loolu la de gaaw bi de sauver nit moom vitesse tax ñu koy wax waaye leneen de xam naa ko Babacar de dee bett na ko laay bu fekkoon ne luy avertir nit la wala mu gént sax ne suba bu ma demee fii nit dina ma jéem a fexel il se serait préparé parce que nit ku amoon logistique la te il se laissait pas faire jàmbaar la daal fu nekk jaay na fa buy expliqué bi mu nekkee ci luuma yi ay jaw dee ay xawma fan ak fan ak fan fu nekk ndeysaan mu koy wax nga xam ne vrai Camelot vrai Camelot ba ñëw ba Argentine di bu ñuy làkk espagnolam comprendre politique géopolitique je ndeysaan il était c'est-à-dire c'était lu ñuy wax nit ku cultivé mu était cultivé noonu ko yàlla yërëm mais man de dee moom metti na de mais bii moom man daf ma daf ma foudroyé daal because I wasn't I was definitely not ready for that kind of news oh metti na yàlla baax na ah on sait même pas quoi dire baax na guys good night man maa ngi ci minuit trente huit mënuma sax nelaw bi lay mënuma nelaw je je daf ma metti daal daf ma metti daf ma metti waaw léegi rek moom lay xalaat ma ne si bu fekkoon c'était un marché hein où il y avait beaucoup de sénégalais nga xanaa bu bu ñu gisee ku song seen mbokk ñëpp jóg satoo leen il a dû être les jaar Bakar groupe rek ko mën a rey benn nit mënu ko rey ak nu mu mën a demee rek benn nit balaa nga koy rey xanaa nga yor fetal taxaw fu sori de bon bon mas daal ma je suis tellement tellement dégoûté par ces histoires d'agression di gaañ nit nit yi soxor nañu.
salaamaaleykum la famille euh, forum aro allo Dakar man la Meliane gëj naa ci forum bi ni mu fi dugg see tey naqar laa àndal depuis démb si guddi naqar ak tiis Babacar Endo ndeysaan yal na ko yàlla yërëm yal na ko yàlla teeru ca aljana yi gën a kawe incha allah rabbi man dama mës a bokk ak moom ndeysaan émission man ak moom ak jaamu yàlla mu nekk nit ku baax vraiment émission bi daf ñu rapproché woon maa ngi koy ñaanal yal nañu duddoo ak jàmm ak salaam di leen ko jaale di ko jaale famiyam Hmm? di ñaan yàlla yàlla na fi gëj ma ne ko yàlla na fi gëj man nag sentir naa ne forom bi li ñuy wax famille dëgg la parce que dese Babacar Endo bi moom démb ci guddi ay deux heures du matin laa ko yëg mais bi ma ko yëgee ba tey naqar ak tiis laa àndal yàlla nañu dëddoo ak jàmm yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeelam jërëjëf bonne journée
aywa salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu rajo Allo Dakar maa ngi leen di ziara bu baax macha allah di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ah waaye bokk métis mi fi wàcc ni moom yéeme na di ah lii de léegi laa dugg rek gis yaa ajaa di ci wax rek ma topp ko ndekete Babacar Endo moom moo génn àdduna xaw ma ko woon sax ndeysaan xaw ma woon ne dafa génn àdduna mais macha allah maa ngi delluwaat ndeysaan ci samay audio ak moom dañ daan weccante ci suuf mu doonoon ko baax waaye yal na yàlla yërëm ko waay est-ce que
asalaamaaleykum nuyu leen ziar leen ku ci ne ci turam ak santam di wax ni ba tey demu Babacar Endo moom xam naa ni lu bette la te lu métti la loo xam ne tey jii nii Babacar mosuñu gisee mais depuis ma dégg tàgg bi démb ba léegi c'est comme si que ni dañu bokk fu ñuy jógee defandoo lépp lu ko waral mooy nekkinam bu rafet bi mu amaloon ci kër gi muy lan Babacar Endo boo déggee ay kàddoom tout le temps da nga siy jàng beneen bi mooy Babacar Endo foo ko dégg moo ngi wax ci liggéey Babacar Endo nekk na nit boo xam ne li mu dund lépp mën na la ko wax du la ci nëbb dara du ci làkk dara ci yar Babacar Endo mooy ki nga xamante ne si ne moo nekkoon fii loo ko mënti wax Babacar Endo du ci du ci mer lu ko nit mën a wax lu ko nit mën a wax Babacar Endo bu ñëwee ay ree la ciy teg suba bu del see yow lay njëkk a waxal Babacar Endo depuis mu nekk ci kër gi ba léegi amul ku mas a gis Babacar Endo soppi ko mel nii tey suba mu mel ne le Babacar Endo benn melokaan la am benn melokaan mën a toloré ak ñëpp nag ak ñëpp moo tax demam bett na ñëpp daal bett na ñëpp ñëpp la bett xanaa kay di ñaan suñu borom njaboot gu mu fi bàyyi mu teg ci loxo mu may ay mbokkam xolu muñ may waa panel bi yëpp ay xolu muñ ndax Babacar mën naa di ñëpp a ngi koy xalaat man mii di wax ak yéen de bi si guddi jot naa sama xel nekkaat ci moom mu naan li ma doon dégg moom ndax si nelaw yi laa ko génte wala lu nekk la kon man mii rek dem gi soke na ma te mosuñu gisee ci ay cadre rek la ñu xamante kon panel bii ñu nekk nii jur na ak mbokk bu yàgg ndax nit ki nga xam ne kàddoom ngay dégg am cofeel ci moom di am yéeg-yéeg si moom ba bu ñu la ko tàggee mu mel sii que ni koo xam ne yéen a fawandoo yéen a defandoo lépp kon Babacar Endo ñoo ngi koy jàll ñoom Bara Cissé ak ñoom Papa Kane ñi mu nekkaloon doo leen Argentine ak ñi nga xamante ne si itam ñoo ko fi tàggee ñu mel ne Malick di ko jàll penel bi yëpp Modibo soxna Hadja ndeysaan Babacar bi mu doon waxal naan ko Babacar Jara bi la itam bu bu Italie tout le temps dama doon dégg ñuy sànnante ay lii ñoom ndeysaan waaw xanaa di ko jaalaat ñëpp ndax xam naa ni li ñu yëg la ñëpp di yëg mu nekk tiis bu métti boo xam ne comme ni mu ko waxee rek bette na métti na li fi nekk mooy yal na suñu borom taxawu ay mbokkam taxawu tam njaboot gi nga xam ne ñoom la fi bàyyi di ko jàll ñëpp ñoom Papis Jawara gaa yëpp ndax Babacar Babacar yi ñëpp la woon Babacar yi ñi gëj a dugg ci panel bi sax da ngay dégg Babacar di leen tudd saa su nekk ba ci melaan bii dugg ci suba gi maa ngi dégg parfois da koy laajte mu nekk nit boo xam ne bu am yitte la yal na ko suñu borom jégal métti na trop gaay
inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ah xabar bi de xabar bu tiis la bu tiis lool lool ñu ngi koy jaale mbokk forom bi yëpp di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla xaare àjjana ay firdaws yàlla yërëm ko jéggal ko ah may ñu xol muñ may ko ay mbokki deretam yàlla na ko yàlla xaare àjjana yàlla na xippee ci àjjana ay firdaws lu tiis la lu tiis la lu tiis la lu tiis la اللهم اغفره وارحمه وعافه وأكرم نزوله ووسع مدخله واغسل خطاياه بالماء والثلج والبرد ونقه من جميع الذنوب والخطايا كما تنقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم بدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله اللهم ادخله الجنة وقيه من النار برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين الله أكبر آمين يا رب asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu maa ngi ziar waa forom rajo allo Dakar bi yëpp di ñëw nag di leen masawu tamit si tiis bi ñu dal suñu kaw ñun ñëpp di leen masawu Babacar Endo yàlla na ko yàlla xare àjjana te fa mu jëm mu gënal ko fu mu jógee foofu démb la ma ko yaa Adja wax man laa ko démb laa ko yëg dëgg fi yàlla ñoo ngi koy naxar ñun ñëpp nag di ko ñaanal bu baax seen xam yàlla na yàgg si loxo ay bokkam fu mu jëm mu gënal ko fu mu jógee si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa ngi ziar ñëpp
asalaamaaleykum wàllu rajo Dakar man de saa maa ngi ziare ñëpp di di leen nuyu si suba si di dugg di jaale Bakar Endo bu gaañu jeudi xaw ma vendredi duggoon na dafa mel comme dafa doon tàggoo di wax bëggoon naa dugg mais xam ne liggéey bi ok dafa xat dafa xat commencé wax yow waay di laan demee deux jours après mu faatu daanu ko yàlla xaar jana yal na saraxam saatu seen loxo et c'est c'est le destin ñun ñi nekk ci panel bi lii rek wàll nañ baal wàll nañ si baal xel da ngeen naan nit ki ngeen ànd du du foo di rey le lendemain ñu ne dem na dara métti ko lii rek lii rek doy na exemple ñu ñëpp dañuy dem kañ yàlla na yéex maa ngi jaale ñëpp maa ngi jaale famille bi yëpp yal na ko yàlla yërëm yal na ko yàlla yërëm yal na ko yàlla xaaral jana yal na suuf seet xam nga ah adduna noonu la adduna mu ngoo de nit ki bu la wax yow doo dara nga nekk fa di wax pourquoi nga may wax loolu anamu anamu Bakar Endo di leen jaare ñëpp merci comme grand Malick mi ko waxee bon si deux jours yi daal bu mu ne teg politique côté bële à côté lépp loo xam ne lu kii la ngañ la dama leen di ñaan bu fekkee ne mën na nekk bu fekkee ne wax ngeen ko si panel bi tant mieux buñ ko waxul nag ah man de loolu laa laaj bu fekkee ne mën nañ ko ne deux jours yi dañuy wàccee comme ni nga koy waxee drapeau yi waaw di leen jaar bu baax merci.
allo asalaamaaleykum wa rahmatullah famille forum allo Dakar maa ngi leen di nuyu di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di dégg nouvelle bu metti bii ma dégg tey ci suba donc di leen jaale suñu waaj yi fi mu toll nii les mots sax ma manque quoi parce que xalaatuma woon ne dinaa xëy tey ñu jox ma nouvelle bu mettee nii ne Bakar Endo ñu naan kan Babacar Diouf de son vrai nom, a été assassiné. Donc vraiment, je suis, je suis sous le choc. Donc di wax waa Allo Dakar yëpp maa ngi leen di koy jaale maa ngi leen koy jaale di ko jaale suma bopp di ko jaale Papis Diawara Modibo Grand Malick Baye Daouda ñëpp maa ngi leen koy jaale kilifa yi flom bi yëpp maa ngi leen koy jaale vraiment je ne m'y attendais pas xalaatuma woon ne tey dinaa xëy ñu ne ma kenn ci ñi nga gën a jox respect dëdd na la pour de bon donc ma koy jaale ñëpp vraiment je ne trouve pas les mots pour exprimer samay sentiment quoi par rapport ak nouvelle bu métti bii ma dégg nii di ko ñaanal yàlla fu mu jëm vraiment il est parti à la fleur de son âge te maa ngi dégg Yaxa Dia di wax ne bu fekkonte ne ñi ko def ñi ko def jëf ñu ñaaw jooju bu fekkonte ne kenn la xëy na kon bakkanam du dem donc maa ngi leen koy jaale yéen ñëpp ku ci nekk di ko jaale ñi mu bokkal dëkk Bara Cissé ak euh, Papa Kane yal na ko yàlla xaare aljana ci aljana yi firdawsi maa ngi jégalu jaajëf waate bañ a fàtte di ñaan laale suñu waaja wala suñu ñaari waay yi fi ci ko yi ko jiiru muy euh, El Hadj Bàcc Diagne nekkoon tamit nit ku baax ak Mohamed Mbeng xayarul alamina adduna moom comme que dañu ne demal maa ngi ñëw la donc ñuy ñaan yàlla rek yàlla bu demee bay yegg si rek yàlla na fekk ñu nekk ci la ka neex demin bi metti na lool lool lool lool lool lool ndax kenn xalaatu ko woon metti na trop trop trop trop Bara Cissé moo ma contacté ci guddi gi mais mënuma ko woon a wax directement parce que bon dafa yaakaaroon ne instant boobu xëy na maa ngi nelaw quoi mais finalement il s'est tourné vers Malick pour jox ko nouvelle bu metti bi vraiment c'est difficile donc di ñaanal Bakar Endo El Hadj Bàcc Diagne Mouhamed Xayrul Alamina ak ñi leen fay fekk yëpp yal na yàlla yeesal yërmandeem ci seen kaw comme que dañu ne lii mënutul ñàkk lu mënut a ñàkk la donc damay ñaan rek yal na yàlla yal na fi géej di nuyu waa forum Allo Dakar yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp jërë ngeen jëf.
sëñ jàmm siyaar naa la waay mbaa lépp jàmm mbaa lépp jàmm foofu waay siyaar naa la bu baax a baax bu gën a bëri waay. yow de maa ngi doog gis sa audio yi nag maa ngi koy doog gis de wallaay maa ngi koy doog gis ma ne ko maa ngi doog gis sa audio yi ma ne ko sa audio yi daal maa ngi koy doog gis ni démb nga ma ko yónnee nag mais dama nekkoon ci démb ba tey dama nekkoon ci voyage moo tax xam nga rek fii bu après fête bi ci suba gi day am dëkk boo xam ne fa la tubaab bi dajaloo fa la nekkoon nag fête boobu noonu di doog a ñëw tey nag di connecté nii moo tax tontu ma sa message bi daanaka bu ma fa nekkee du ma connecté du ma connecté damay déconnecté carrément moo tax ah loolu dama loolu waxoon nañ ma nag ne dina am ambassade mais musuma xam na installé woon Sénégal fi mu ne nii mais dégg naa woon naa nag amoon na ñu bëgg a installé ñu ngi woon mais installé guñ loolu nag li nga wax ne maa ngi koy information maa ngi koy doog am moom ambassade moom maa ngi koy doog am mais mos na déggoon naa nag dinañ mos a installé nañ ñu ngi bëgg a bëgg a installé ambassade du Sénégal Argentine maa ngi ko doon am nii mais xam nga woon daanaka li may am ci Allo Dakar sax du ma ko am ci Argentine fi mu ne nii Sénégal li ñuy bari bari yëpp yëpp yëpp yëpp daanaka dama nekk dëkkul ak ñu bari te dama nekk ci àll bi daanaka daanaka information bii nii nii nii yaa ma ko jox nii mais mën naa ko ña yëguma ko ci yëguma ko ndax daanaka am na groupe yu ma bokkoon nag mais final après sama téléphone bi ma ko raxasee daanaka information yu bari ca laa ko gëj a amee te li may toog ak Sénégal yi fii ci dëkk bi fi mu nekk daanaka man ak sama rak rek a fa ne ak quelques Sénégal te li ñuy gisante barewuñ daanaka at mi mën naa ne ñaari yoon la ñuy gisante wala ñu rombante nu yoonte du ñuy toog ba waxtaan moo tax te loolu moo tax daanaka boo boo ko boolee nag doo waxtaan ak Sénégal yi yaa ma gën a am yaa ma gën a am information bi fuuf li xew ci dëkk bi nag moom maa ngi koy xool nag télé yeeg di waxtaan ak tubaab yooyu moom dama koy xam mais nag lu xew nag moom ci information moom mu ngi daw ci biir Sénégal yi moom bu ko sama rak bi jotut wax ceeg man lii kay yaa ma ko jox jërëjëf waay non wóor na yàlla maa ngi koy doog a yëg lii kay maa ngi koy doog a yëg déggoon naa nag ne dinañ am mais xaw ma woon kañ la nag mais déggoon naa ko siyaar naa la bu baax waaye.
asalaamaaleykum from bi ñu ngi leen nuyu bu baax xam naa di ñëwaat rek di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun démb bi may déggee xibaar bi vraiment man mënu ma ko woon gëm moo tax ma wax Malick la ko est-ce que c'est vérifié. lu lu lu so lu sokaanoo lu mel lu sokkee lu mel noonu moom ah dëgg dëgg dëgg dëgg fàttaliku ma ko gëj na gëj naa am si man dëgg yàlla dem na ma génnoon dem côté Kër Madiabel mënu ma ubbi sama audio yu bëri mënut a ubbeeku ndax internet bu faible bi mu ñëwee ba dugg Kaolack si laa commencé ubbi di déglu ba ma agset sama kër waaw ñaareel rek pare gannaaw la ak si audio Malick bi dégg ko loolu man mënu ma ko war a gëm sax wax dëgg yàlla nit ku baax ku am fayda ku baax ku am fayda nit ku bëgg euh, doomu aadama humanité ku bëgg doomu aadama ñii buñ ko xamoon duñ ko rey de wallaahi lazim buñ ko xamoon am na ñu ñëwee si moom sax ak lu ñu mën a soxla si moom mu jox leen ko vraiment nit ku baax man dama daan teg léeg-léeg bu ma nekkan Amérique damay teg audio yi bu ma sonnee teg ko sama pegg di déglu audio yi from bi laa wax léeg-léeg ma nelaw mais léeg-léeg soxna si ma yeew moo may nettali sax dafa xam Babacar moo tax démb dama ko oo ñu jox ko jox ko xibaar bi na ko yaa ngi rappelé kii may laaj Babacar dafa xam Babacar waxtaan Babacar daf ko neex waaw nit ku bëgg bëgg bëgg bëgg lu baax bëgg lu baax am expérience bëgg Sénégal ba bëgg sax lépp lu baax Sénégal Babacar këri diine yi amul sax jéem a toog di lu njutu wala wax ñoom ñëpp la maasale bëgg leen amul sax ñaari xel moom moom day wax rek bu dee nangam ak nangam ak nangam lim këri diine yëpp la bëgg waaw yal na ko yàlla jox barke mag ñooñu noonu moo amoon cofeel si ñoom yal na yàlla def jëf mag ñi bokk si li koy ram mu yaa rabbi dafa shahid yonent bi nee na képp ku dee si sa alal ma nga shahid saa seen jël sa alal man ma daan jëflante moom wax dëgg yàlla hors de from bi am na yu bëri daf ma ko daan wax ak yooyu si waxtaan ba kaset bi ma dugal nii sax fekk lu ñu doon liggéey la maag moom dama ko doon dimbale jëflante seeg moom far nag xam nga anyway yàlla vraiment vraiment nit ku baax la nit ku baax la am fayda am fulla ak fayda am respect surtout nag loolu am respect baax nga am respect si doomu aadama waaw moom xam naa ne sénégalais la def la def premier si kanamam bëgg sénégalais respect ki sénégalais yan yàlla xaaral ko aljana ya rabbi waaw lépp lu mu def si lu baax mu néew mu bëri yàlla ko yàlla ful def ko muy ay jëfam yu baax yu koy ràmm si barke bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke alquran barke bi saalihin yi yàlla ko yàlla bind si kayab suhada yi métti na doy na waar doy na waar doy na waar man de yàlla xam ne na guddi gi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp vraiment moo nekk sama xel mi nekk sama xel mi waaw waaw parce que ngeen ko jàllee ñëpp yéen waa From bi ok.
asalaamaaleykum kullu From àllu rajo Dakar mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di nuyu ñi ma fekk si bunt bi yëpp sëñ Laas Ñas ak mbokk yëpp di leen ziar di leen masawu yéen ñëpp si lii nga xam ne mooy li ñu bokk ndogal li nga xam ne dab nañu démb muy Bakary Endo. metti na lool metti na ñun ñëpp gis nañ Bakary Endo ni meloon ñun ci forom bi ak taxawaay bi mu amoon ci forom bi lewet neex deret ndeysaan mën a waxtaan ku yàlla may xel ku ko dégg xam ne it ku am jom la ku ñeme liggéey waaye ku fonk njabootam ku bëgg njabootam lii dal nag lii wàcc nii dafa di lu metti lu doy waar ñun ñëpp démb bañ ko yëgee choc la si ñun deewee na ndaw si lu teel si lu bette yal na ko yàlla yërëm yàlla xaare ko aljana ji kawe ji te njabootam bi nga xam ne moom la bàyyi Sénégal te moom njaboot boobu moo taxoon nit mu génn dem wuti ji mel ni ku nekkoon ci xare ba dee yal na ko yàlla yal na sàmm sàmm njaboot gi teg loxo njaboot gi def barke ci ñoom sàmm leen aar leen moom nag fa mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jógee di ma mastaw waa forum bi yëpp di jaale waa forum bi yëpp ah di am yaakaar ne kat foofu mu nekk Argentine noonu dinañ ko taxaw yóbbu ko sa Sénégal denc ko denc ko ku si am ay information ñu jëm see taxaw ku xam ay information ay mbokkamit ñu yëgal ñu foo comme ça suñu demee Sénégal dem jaale ji ay mbokkam seet ay mbokkam metti na lool metti na lool bette na sunu xarit la woon ku lewet la woon te waxtaanam ndeysaan dañ ko daan déglu di si for lu bari di si jàng lu bari ndax xalaat bu xóot la yoroon yàlla na ko yàlla xare aljana ci kawe ji
asalaamaaleykum wa rahmatulah rajo Allo Dakar booy comme Bara Cissé fii ci Argentine ak Sénégal di leen siyaare ñëpp ku ci nekk tur ak santam waaw di leen baal ak di leen baal ak yéen ñëpp waaw vraiment di am naqar rek booba léegi xam nga am naqar moo tax mun ñu dugg booba léegi quoi waaw di leen jaale sunu mbokk sunu xarit sunu mag Babacar Endo ñu xam ko gën koo xam ci Babacar Diouf. waaw yal na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana yal na ko elaaxiral daqal àddina vraiment ami bett na lool te demal na demal na ndaw lool vraiment ah di koy jaale waa groupe yëpp daal di koy jaale grand Malick ak Papis Diawara ak ak Baye Daouda ak Mbaye Faye Land ak alxages jàmm yàlla Babacar Diogu ak Babacar Diop ñëpp daal ku lim jum vraiment daal di am naqar daal di leen ko jaay ñëpp waaw nit ku baax nit ku nangoo liggéey sax waaw man maa moom ay jamono bokk noonu nekk fële fi mu nekk nii maa moom ay jamono bokk noonu faa nekk yéen dafa am jigéen di jóge nag trois ans yëpp nekkatuma fa quoi waaw ku nangoo liggéey sax foo ko fekkee dóor waar rek vraiment yal na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana yal na ko laaxaral dàqal àddinaam yal na ko yàlla fa mu jëm dàqu ko fuuf fi mu jógee waaw di ko jaale waa groupe yëpp daal vraiment képp ko xos daal yaa ngi ci biir groupe bi maa ngi koy jàll waaw wax dëgg yàlla xam naa dana wetu groupe moom wax dëgg yàlla moom ku amoon xorom la ci groupe bi wax dëgg yàlla dana wetu groupe yëpp vraiment yàlla daal fa fi mu jógee barke Seydina Mohamed barke Alxuraan Karim barke Sëriñ Tuubaa vraiment doy na waa trop xam naa lu mu ci gën a xam lu mu ci gën a am lu gën a leer rek xam naa danaa leen danaa danaa ko danaa leen ko wax quoi parce que saa yi nii heure Sénégal ak heure Argentine dafa am déclasse Sénégal moo war a Argentine transfert de temps xam naa dinaa jéem a jokkoo ak rakk ji quoi waaw incha bi moom nag mu ngi dëkkoon Diourbel la dëkk Diou Njaaréem la dëkk Diourbel parce que bu ñu jëlee Sénégal lay yàggul xam naa ba tey ay six mois ci la yem quoi waaw di jàll waa groupe yëpp daal vraiment yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla xaar àjjana yàlla na yàlla xaral daaw ko àddina am waaw ku amoon xorom sax ku nangoo liggéey nag. xam naa dana wetal groupe bi moom vraiment dana dana dana dana wetal forom bi de bu baax a baax sax waaw Babacar Endo rek ay waay yàlla na ko yàlla yërëm taxaare ko àjjana yàlla na ko yàlla yërëm taxaare ko àjjana yàlla na ko yàlla yërëm taxaare ko àjjana yàlla na fa mu jëm dàqu foofu ñu jógee waaw dañu wetal loolu la vraiment yaa ngi koy jaale waa forom bi yëpp daal képp koo xam yaa ngi ci forom bi ñu ngi la koy jaale ñu def ko ay ñaan ñu def ko ay ñaan yi ñëpp rek waaw vraiment baax na jërë ngeen jëf.
asalaamaaleykum sama gaañ maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar di masawu forum bi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp xam naa ni guddi démb duñ ko fàtte Euh, di leen wax ni Bara Cissé lépp fépp yëf yi toll dinañ ko wax mais contacté naa rakkam bi Ibrahima Diouf ñoom ñaar ñoo nekkoon foofu ci Argentine nekk kër gi boo wootee rek bi nga xam ne nitu nit ñi la woon ñëpp ñëpp ngay pour nga wax ak Ibrahima sax problème la mais nee nañu pour corps bi yóbbooguñ ko ndaxte il faut que ñu am autorisation pour yóbbu ko Buenos Aires et foofu nag il faut ñu am autorisation pour génn ko mën na jël minimum un mois waaye fuñ ci toll dinañ Ibrahima dina ma woo wax ma ko ma àggal leen ko ak lépp loo xam ne nii yu fi laaj na ko ah ñu àggal leen ko maa ngi en contact ak Ibrahima wax nañu sànq wax nañ ñaari yoon. tey ci bis bi ñaari yoon parce que dama teel a xëy quoi woo ko Bara Cissé moo ma jox numéro ma ko woowee aussi it métit métit métit mais comme ni ko gars yi waxee dépendre ci ñun mi ngi dépendre ci ki ñu sàkk mais daal fu mu toll yëf yu toll rek incha allah di ngeen ko yëg may bàyyi ba fii ak ngoon ma woowaat Ibrahima fii ak mercredi peut-être affaire gi dina décanté wu suñ mënee jël ay contact ci autorités yi aussi autorités sénégalaises yi ñi ci ñi ci xam ñu jéem a contacter bu fekkee ne consulat la wala ambassade ñu jéem a xool naka la ñuy def quoi mais daal ñoo ngi ci di gërëm ñëpp di sant ñëpp jërë ngeen jëf
asalaamaaleykum Cheikh Malick maa ngi lay euh, nuyu ci fajar gi ah, di nuyu mbokk yi ci forum bi yëpp di la remercier ci jéego yi ngay dox ci mbir mi waaw lépp lu ci loo ci am ci information rek lépp loo xam ne war nañ ko ci def ñu seet daal nu ñuy euh, góorgóorloo rek ba taxaw ko ci li femme yi bëgg affaire bi metti na trop metti na trop trop trop trop trop trop et puis Malick soo mënee aussi am information moom fu ñu ko nar a suul mbokkam yi fu ñu nekk au Sénégal ville bi ñu dëkk ak yooyu yëpp fexe rek ba incha allah ñi ku mu ko ku mu soxal nga nga yegg fa jaale ko famille bi yëpp ziare bàmmeelam aussi yooyu dana ci baax parce que ay nit ñu ay nit ñu mel nii waruñu leen fàtte ñoom Mohamed tey Bakar na dina doon na am solo ñu vraiment dajale benn répertoire bu ndaw sunu frère yooyu fi jóge ñu amaat seen contact wu famille yéen am aussi information wu fan lañ leen suul ban ville lañ leen suul wala ban gox ak contact seen famille ku mu soxal rek soo jaaree boor yooyu Sénégal nga jokkoo ak famille dana ci am solo lool ñu bañ leen fàtte rek waaye ñu bañ leen fàtte yàlla na ko yàlla yërëm bay
salaamaaleykum waa front bi da ngeen def waay ñu ngi leen di ziare waay kenn ku nekk ci turam ak santam di ziare gaa yëpp rek waay waaw vraiment di leen ziare Babacar rek waaw yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla xaare àjjana yàlla na ko yàlla xaar ci àddina yu gën a kawe taxaw njaboot gi mu fi bàyyi jërë ngeen jëf waay ñu ngi leen di ziare yéen ñëpp jërë ngeen jëf.
asalaamaaleykum wa rahmatullah ak groupe Awas Dakar moom la seen noonu moom la seen Modou Samb maa ngi leen nuyu di leen ziar ah waaye man di di déglu rek am si am nouvelle bu naqare bi waaye inna lillahi wa inna ilayhi rajiun inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ah li moom doy na war doy waaw bàkkaar waaye ay yàlla ko yàlla yërëm di jégal koy bàkkaaram vraiment lii métti na métti na trop trop trop trop trop trop ñu leen koy jàll ak groupe yi ñëpp nga bugg ak cat ba cat di ñaan yàlla yàlla yàlla defal ko yërmande fa mu jëm dàq ko fa mu jóge di ñaan njaboot gi fi bàyyi yàlla suñu borom teg loxo vraiment lii métti na métti na trop trop trop trop trop métti na lool yéeme na yéeme na yéeme na yéeme na yàlla na ko suñu borom yërmande jégal koy bàkkaaram ah waaye lii de métti na waaye yàlla na ko suñu borom yërëm yàlla na dee du naflaayam yàlla na yàlla teg loxo suñu njaboot vraiment métti na trop Bakar de ku baax la woon ñëpp la amaloon jàmm waay ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ni mu mel di vraiment groupe bi ñëpp koo ci ku wax ak moom ah du mer agré daanam ji bëgg jàmm bëgg kaf nangoo doon jàmbaar tamit ni ko gars yi waxee wax dëgg yàlla ah yéeme na yéeme na yéeme na yéeme na yàlla na yàlla yërëm ko waay yàlla na suñu doon defal yërmande yàlla na dee du naflaayam yàlla na yàlla teg loxo njaboot gi mu fi bàyyi ay gars yi xam naa ne moom vraiment li moom choc la moom ci groupe bi moom métti na lool dina métti ñëpp moom wax dëgg yàlla waaw lii moom moom moom doy na war yàlla na fi gëj quoi yàlla na fi gëj maa ngi leen koy ziyaar yi ñëpp leen ko jàll ñëpp boobu gaal cat ba cat
asalaamaaleykum sama gaañ maa ngi leen di nuyu dellusiwaat rek di eh, doon wax ak Ibrahima Diouf di rakk ci Bakar Indo Babacar Diouf Mm, di leen gërëm rek parce que nee na moom bokkul woon ci groupe bi waaye Bakar lu baax rek la daan wax ci groupe bi muy Allo Dakar ci diaspora bi donc di remercier ku ci nekk ci yéen yóbbante ay ay ngërëm yóbbante ay ñaan jëmale ko ci ñiy dugg fii depuis démb di naqarlu di am tiis ci sunu mbokk mi génn àdduna ndax seede ñun jullit seede dafa am solo ci ñun ku génn àdduna seede daf ci am solo naa ne ñoo xam ne nii amuñu jot kenn ñoo dugg ci biir forom bi waaye wane nañ ne ci famille bi lañ bokk wane nañ ne naqarlu nañ ko loolu day dal xel nga bokk ci ab groupe am kenn ku wàññeeku ñëpp dajaloo ñëw taxaw ñaan seede da nga naan kat man fii ma bokk nii kat mbokk mbokk mbokk gu dëgër la ndax du woon toog bis te duggul bu toogee bis ñaari fan te duggul ñëpp dañu xalaat ana bakkar donc ci kër gi la bokk ci kër gi la bokkoon te ci lay kon ne di bokk di ñaan yàlla ci mbaaxam yàlla na ko yàlla yóbbu ci àjjana yi gën a kawe ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais di ñaanal aussi ñëpp ñi nga xam ne dugg nañ depuis démb di seede parce que loolu la ci am du alal bu ñu yónnee du daal ay bu ñu yónnee alal it bu ñu defaree ay sarax ñeneen a koy lekk mais li ñuy seede di ko ñaanal looloo koy topp metti na metti na trop mais daf ñuy gën a delloo ci jàppoo gën ñoo delloo ci cofeel diggante doomu aadama diggante ay pat compatriote diggante ay jullit diggante ay nit te loolu laa déglu naa ñi dugg ñëpp di ñaanal yéen gaa ñi nga xam ne dugg ngeen te ñaan yal na leen yàlla mu mel ne balub tengs boo dóor ci biir mu dellu ñaan googu yàlla na dellu siwaat ci yéen dellu seen njaboot di wax rek ne maa ngi en contact avec la famille lépp lu ci am rek incha allah di ngeen ko yëg lépp lu ci am bu neex yàlla di ngeen ko yëg continuer di ñaan rek di leen ñaanal yéen ñëpp di leen ñaanal yéen ñëpp yàlla na leen yàlla defal jàmm te lii yàlla na fi géej yàlla na fi géej li taxoon kilifa yi defar groupe bi wax dëgg yàlla taxaw na taxaw na dëgër na kenn mënatu koo simpi lu metti kenn rek ñi ci des ñëpp da leen di metti te loolu ngeen wone di ñaan dimanche bi nekk dimanche su jàmm dimanche su xéewal te yàlla suturaal ñu suturaal sunu njaboot jërë ngeen jëf
asalaamaaleykum wa rahmatullah waa forum Allo Dakar la famille maa ngi leen di nuyu di leen ziyaare eh, di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen eh, di jël nuyoo bi di ko tekki loxo Pape Daouda mu yële ko ci kaw di wax rek inna lillahi wa inna ilayhi rajihoon ah perte nañu ndeysaan nit ku baax nit ku mën a kaf nit ku mën a ree nit ku bari jàmm macha allah ah wax dëgg yàlla Babacar ku baax la ku baax la sama doju mag bi rek ndeysaan woo na ma jaale ma ah vraiment vraiment ku ko ne woon yaa kook li ngeen di rawantee du bari du ko gëm mais nag damay ñëw rek di wax li nga xam te ne moom la ma sama waajur bu jigéen wax barki démb bi ma ñàkkee sama mag gi ne ku am sa alal ci banque saa yoo ko soxlaa da ngay dem jëli la neex defee ko ni nga neex la neexee kon ñun ay alalu suñu borom lañ ku mu soxla si ñun rek dana ko jël ak ni mu ko neexee dañuy ñaan rek moom mi nga xam ne moo ko moom moo ko jëlaat mu jéggal ko bépp bàkkaaram xaaral ko ci aljana firdawsi wooye fa suuf si kaw te musal ko ci bépp mbugalu bàmmeel te njaboot gi mu fi bàyyi yàlla teg loxo ci moom ba pare may leen xolu muñ loolu lañ koy ñaanal yàlla ko yàlla xaare ci aljana yi gën a kawe ci firdawsi yàlla yërëm ko jéggal ko metti na fu metti mën a yem metti na fu mën a metti mën a yem ah, tey moom ñun ñëpp a sëngeem man gëmuma ko woon damaa ne déedéet mënuma kaa gëm xool naa comme rek li sis koo wax xool naa trois fois mu ne man est-ce que ñiy juumuñu waaye nag ah ni mu koy comme ni ñu koy waxee rek ku sañ te bañ sañ a nangu comme que mënuñu ci dara li ñu mën rek mooy di ko ñaanal di ko ñaanal di ko ñaanal fu ñu toll buñ ko fàtte ci sunuy ñaan yàlla jéggal ko yàlla na yàlla may fa ñun xolu muñ ñun ñëpp xam naa metti na si ñëpp jërë ngeen jëf.
asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu forum bi maa ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax a baax a baax a baax di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajihoon ruux yëpp ci yàlla la ñu jóge ruux yëpp ci yàlla la ñuy dellu waaw di wax ne lii de moom aw tiis la lool lool lool lool lool ci groupe bi yëpp rek wax dëgg yàlla man de comme noonu ko sama sëriñ jaamu yàlla waxee démb bi ma man léeg-léeg groupe bi damay toog ay fan du ma kii waaye bi ma démb damaa ñëw nag di déglu commencé ci kaw di waaj ma jékki-jékki rek seen benn message bu jógee ci sëñ Malick Diagne sëñ Malick moom ay message am toujours su ma gisee dama koy déglu ji ma njëkk gis mu njëkk a bind dafa njëkk a bind bi bindee nag ma xool ko ma ne waa Malick xanaa day tooñ Babacar Bakar en wala dara après tuuti mu teg ci ab audio nag affaire bi gën maa choqué nag vraiment moom comme noonu ko ñëpp waxee rek man moom vraiment affaire bu ko déggee dem moom doy na waar lool metti metti na metti na metti na vraiment metti na waaw waaye nag moom yàlla moom ñun ñi ñëpp kenn xamut kan mooy next kan moo ci topp waaw ay at ci at wala ñaari at ci gannaaw rek ñaari at ay ñetti at ci gannaaw xëy dañoo xëy xëy ñu tàggee ñu suñu mbokk mu daan waxal ci groupe bi muy sëñ Mouhamed Beng yàlla na ko suñu borom xaare àjjana ma tamit te yërëm ko waaw tey jii Babacar la keneen nag suba keneen lay doon waaw kon àdduna moom nii rek la dama rek maa ngi ñëw ni ko sama benn maam daan waxee rek kuy jooy rek jooyal sa bopp ndax moom kenn xamut kañ la sa bës waaw ay Babacar moom wax dëgg yàlla moom am na koo wax sànq xoromu xoromu groupe bi la woon xorom su groupe bi heure bu waxee rek ñaari baat yu mu wax ñetteel ba ay retaan la ko la koy ñetteele te bu duggee ñëpp lay nuyu moom waaw moom bu duggisee moom tout le monde ku ne ci groupe bi ku nekk dana jaar sa tur nuyu la ziar la waaw soog a wax li muy wax audio yëpp boo ko dee déglu bu njëkk moom lépp ay nuyoo la koy nuyoo la koy jagleel waa groupe bi yëpp loolu nag ak yéeg la ak yéeg-yéeg gu mu am ci doomu aadama waaw te it ñu bari ñu ko waxee ku intelligent la woon nit la koo xamante ni ku am xalaat la ku rëy xalaat la ku rëy am am maanaam am xel maanaam waxtaan wu nekk bu ciy participer man de yàlla xam ne ay audiom toujours dama koy déglu parce que ay audiom yu baree bari am njàngale da ciy nekk waaw te moom dafa mën a gëstu boo ko dégloo da nga xam ne ku mën a gëstu la ku mën a topp ay xibaar la ku mën a gëstu ay mbir la te it lu mu gëstu lu nekk eh, xalaat yu leer moom la ciy indi waaw ku amum xel la vraiment waaw yàlla bu ko cat ci jiitu ci bàmmeelam yàlla na ko suñu borom xaare aljana waaw yàlla na suñu borom yëkkati ko ci maqaama yu kawee waaw autiste la lool métti na lool vraiment métti na métti na métti na ñu ngi koy jaale waa groupe bi yëpp tàmbalee ko ci Modou Bo sëñ Pape sëñ Malick Dieng képp ku ne ci kër gi rek ñu ngi la koy jaale waaw yàlla na suñu borom xaare ko aljana encore yaa ngeen jëf.
allo salaamaaleykum forum rajo allo Dakar maa ngi leen di nuyu di leen ziar man la Laye Diop maa ngi leen ziar ñëpp di nuyu ñëpp di jaale ñëpp aussi vraiment nouvelle lu tiis te tiis tiis vraiment dal na ci famille bi quoi Euh, Babacar vraiment un gars bien un gars macha allah quoi vraiment man daal li ñuy témoignage yi si nit ciy def rek euh, wane na kan mooy Babacar quoi yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana njaboot gi nga xam ne moo taxoon aussi muy dem di daw di wut lu mu leen jox njaboot googu yàlla na ci suñu borom teg loxoom yàlla na ci suñu borom yàlla na ci suñu borom taxaw taxawu njaboot gi taxawu xale yi ba li nga xam ne seen waajur yi muy Babacar lu taxoon muy ñafe lu taxoon mu bëgg yëf yi boppam yàlla na suñu borom barkeel xale yi ba ñoom it vraiment ñu màgg mu àgg ba barkeel ba taxaw seeni waajur yu jigéen ak ñi ñu fi bàyyi yàlla ko yàlla yërëm waay di ko jaale ñëpp. waaw sama gars yi maa ngi leen ñëw doon la ziar maa ngi doon xool ci ci ci web bi. boo xoolee bon soo ko defee nag en espagnol quoi un sénégalais assassiné en Argentine mais boo ko defee boo ko tapé en espagnol di nga gis ni am na ay trois quatre journaux yu nekk Argentine yoo xam ne ñu ngi ciy wax quoi bon d'après ce que j'ai compris ci résumé bi affaire bi ay côté une heure et demie yooyu la commencé woon ay samedi waa ji dafa jóge bi mu ñëwee ñoom Babacar fi ñu nekk di jaay fi ñu doon jaayee noonu waaye bi mu ñëwee moom visi visiblement xamoon nañu dafa mandi quoi ci alcool ak yooyu mais aussi yaakaar nañ ni il était sous l'influence de la drogue aussi bi mu ñëwee commencé zëmbale foofu xam nga gars yi teg seeni bagage foofu di jaay mu commencé rajaxe bagage yi ba bon bi mu ñëwee ba ci Babacar jaxate bagage Babacar yi daal di Babacar daal di jël bagage yi delloo waa ji tamit daal di dem ñëwaat xam naa Babacar bu boobaa day jéem a taxawul xam nga jëmmal boppam léegi nag waa ji ci la génne paaka bi mu koy jam mu jam ko ci loos bi quoi xam nga loos dèjà bu la jamee bu la teelul assisté rek deret bi fay jaar mooy bari quoi bu la teelul assisté rek mën kaa perte lu bari secours yi d'après lu ma dégg ci lu ma gis ci journaux yi secours yi ñëw nañu à temps teel na ñoo ñëw moom parce que bi ñu ñëwee jël nañ ko te ba bi ñu koy yóbbu ba bi ñu yegg hôpital il était en vie mais comme deret yu bari noonu bu commencé génn ci yow daanaka lu ñu gaaw gaaw gaaw xeeb quoi bon malheureusement xam naa loolu tax après par la suite bon finalement munu munuñ ko sauver quoi waa ji nag bi mu ko jamee ba mu gis mu commencé naaj d'ailleurs boo xoolee journée yi di nga gis sax naaj ci naaj yu bari foofu fu mu toogoon ak kii y a plein de trucs yoo xam ne bon xëy na doo ko mën a dugal ci forum bi wala dara mais xam naa waa ji nag bi mu gisee deret ji bari affaire mu bëgg a daw mais gars yi jàpp nañ ko bi ñu ko jàppee commencé koo dóor commencé koo créer ci la police ñëw intervenir police na bi mu ñëwee jàpp nañ waa ji pour l'instant moom il est en prison et puis activé nañ bureau procureur bi ak police bi ak autorités yi gars yi ñu ngi defay enquête quoi ñu ngi dem foofu ji laaj gars yi nekkoon foofu aux alentours di jéem a recueillir seen i seen i abi pour jéem a xool ce qui s'est passé quoi mais euh, en gros daal loolu la journaux yi titre foofu par rapport ak décès Babacar bi quoi dama ne woon xaaral naa ko yeggee gars yi ça fait un peu plus d'information comme dañoo toog ci dañoo nekk ci guddi gu ba seetagum au moins peut-être un peu plus d'information dina tax nit ñi aussi gën a xam fu ñuy toogee quoi mais yàlla yàlla suturaal rek xam nga lu ñu lu ñu lu yàlla tudd rek quoi parce que kii tey ku ko di woon ba ngay dem. wala ba mu wisee waa ji wi ñëw waa ji màndi ku ko ni woon kii moytu ko ndax mën naa yóbbu sa bakkan xëy na sax du ko gëm mais suñu borom xëy na lu mu nam moom kenn mënu ci dara quoi mais vraiment yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana te yeexe ñu
salaamaaleykum yéen waa Allo Dakar Bakar la Bakar Indou man la de man la sëriñ man la sëriñ de si jàmm jaar naa la bu baax a baax kat moom laa gis si bunt bi ni sëriñ man la sëriñ Bara Cissé seer naa la ne seer gaa yi baax rek Bara Cissé Issa Jara seer naa la Mamadou Bàccali grand Thiam te siyaar nañ la waaye di la ñaanal jàmm di ko ñaan sama bopp yàlla may ma li ma bëgg may ma xaalis may ma li ma bëgg yëpp amin tuf naa raaya jibi gis naa la barki dee bi foore mbos foore mbos laa doon bëgg a wax démb bari dégg naa la démb moom dama laa leeg grand jaamu yàlla ma ne ko démb moom maa ngi woon ci grand jaamu yàlla démb mu ñu waxtaan mu ne moom maa ngi woon démb di ko tooñ ba mujj daane la sax ci waayam ji comme ni ma ko waxee woon démb rek gannaaw nu yooyu suñ jaam waaw suñ jaam nag moom wax dëgg yàlla nag dëgg dëgg fa yàlla nag moom dama leen di nangul lu ne ba mu des da ngeen di mën a gagné élection Sénégal moom nangul naa la lu ne de nangul naa la defar ngeen ma ne waaw def ngeen fi courant ma ne waaw waaye gàñaate élection Sénégal moom maanaam dañoo dañ leen a yóbbu foo xam ne da ngeen fa pour ngeen dëppaat dafa daf dootul yomb da ngeen ak ci xolu sénégalais yi seen jàmm li ëpp boo xoolee sénégalais yi man lu wóor laa la wax waxuma la lu ma for de waxuma lu gëm waxuma lu ma dégg waxuma lu ma lu ma for lu ma xam laa lay wax lu ma xam xam nga nit ki lu mu xam daanaka da lay leer ni comme sama loxo bi sama juróomi baaroom yi ni ma ko talal ni ma leere li may wax ni li may bëgg a wax ni noonu la ma leere maanaam yéen nguuru Macky Sall li wóor te wóor mooy li ngeen di gis nii rek bu leen maanaam dem fay ay nit ñu ñëw xam nga woon la mbooloo bu fekkee loolu suñ jaam ci nga baase wu rek yaa ngi ci erreur bu rëy a rëy suñ jaam Macky Sall dafa minorité torop torop torop torop Sénégal moo tax bu ngeen ko defut coup d'état bu ngeen defut ñi ñi gañe leen te ñëpp xam ne dañ leen a gañe ngeen foqar ñi ko ah gëm naa deuxième tour sax yàlla ngeen fay daak mën ngeen fa àgg nag mën ngeen a dem ak deuxième tour ku ne mais wóorut sax ngeen dem deuxième tour lu wóor laay wax ñi ci des moom yeneen la ëpp doole bu fekkee nag moom ni ngeen ko bëgg a organiser moom bu fekkee benn signe benn problème amut Sonko defut fexe ngeen ba téye Sonko bi làmmiñ wi fexe ngeen ba defut benn signe loolu nag xam naa moom dina jafe nag maanaam ngeen ni ngeen ko bëggee ni ngeen ko bëggee doxalee mu demee noonu ngeen teg fi li ngeen bëgg te Sonko tëj ko ci kaso gi waxut jéemut deful dara lépp nekk ay normal defut benn signe ci kenn defut benn problème loolu nag mooy sama problème maanaam bu defut benn signe Sénégal yi jubluwuñ ci kenn affaire yi demee nii comme ni mu demee nii rek ngeen tànn li ngeen bëgg a tànn dem ak ñoom élection ñooñu moom yow sax da ngeen leen di gagné premier tour maanaam Sénégal yëpp seetaan ngeen def li ngeen bëgg organiser élection jël ñi ngeen war a jël bëreeg ñoom daan leen daan bu wóor dem seen yoon mais nax nax noonu lay demee nag waaye bu ngeen bu élection yi sénégalais yi bu wootee niñ ko bëggee defee niñ ko bëggee donte Sonko bokkut ngeen teg ko niñ ko bëggee def ko niñ ko bëggee gëw ma sax gëw ma sax di ngeen dem deuxième tour te mën naa ko waat ci yàlla nag billaahi wallaahi tallaahi billaahi wallaahi tallaahi bu ngeen tegee élec bi lu xam nga lii moom ñi ma waxoo giñ ci caaxaan billaahi wallaahi tallaahi bu ngeen ko tegee ci yoon Macky Sall du toogaat du am ak Amadou Ba du falu billaahi wallaahi tallaahi bu lépp tegoo ci yoon ñu def ko élection élection transparente yu leer nañu nañu nañu nañu nañu nañ billaahi wallaahi tallaahi Amadou Ba du falu ci réew mi billaahi wallaahi tallaahi laa la te lu ma giñ nag laa la lu ma gëm laa ndax sondage yi daf ko wane dafa maanaam da ngeen a amul fenn fu ngeen war a mën jaar ba gañaat Sénégalais ndax ga booy Sonko li ma la wax démb rek
ñi ngi fàttaliku sunu frère sunu xarit sunu mbokk Bakar Indou bi newoon Argentine yàlla ko yàlla yërëm
baax lool bëggoon lool ay mbokkam la vraiment defal leen lu ne nag lépp lu mu mos a kii fii rek def na ko ci ay famille doon ku baax koo xam ne moom jàmbur sax bu ko gisaawoon day kontaan ci moom ndax mën a kafam waaw bëgg nit waaw jumaa yi njaareem jooj dañ fa daan dem lu bari mais nit ñi mu doon toogal rek bu ñëwut dañ ko doon laajte wallaahi man dama daan ànd ak moom asalaamaaleykum waa Actu de Sénégal ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di nuyu Abdou Wade mi nu fekk ci bunt bi ah di ñaanal suñu waa ji dem rek di ko ñaanal suñu borom yërëm ko xaare ko àjjana Babacar Diouf ku baax la woon ñun li nu mën a seede ci moom bari na ndax ñoo bokk benn koñ lu matut presque vingt cinq mètres moom lañ dëkke woon waaw muy ku jàmbaare woon ci famem baax lool bëggoon lool ay mbokkam la vraiment defal leen lu ne nag lépp lu mu mos a kii fii rek def na ko ci ay famem doon ku baax koo xam ne moom jàmbur sax bu ko gisaawoon day kontaan ci moom ndax mën a kafam waaw bëgg nit waaw jumaa yi njaareem jooj dañ fa daan dem lu bari mais nit ñi mu doon toogal rek bu ñëwut dañ ko doon laajte wallaahi man dama daan ànd ak moom waaw muy ku baax ah yal na ko yàlla yërëm xaare ko àjjana dem nag bu jotee suñu borom moo koy def waaw da koy jaarale ci loxo doomu aadama beneen waaye yàllaa koy matal ku sa kii mat rek nga dem yal na yàlla yéexal affaire yi te bu ñuy kii fekk ñu ci lu neex yàlla mais yéeme na lool ndeysaan
asalaamaaleykum rajo Allo Dakar na ngeen def man daal maa ngi leen di nuyu bu baax ci dimanche bi teel a jóg nii waa xëy di yaakaar ci guddi gi ne ah man daal yàlla ni lii am naa comme démb dama doon relax tuuti rek tëdd mënuma dara dara dara mën na am nga yeewu ñu ne ximaliku na wala mu daal da ngay xalaat yoo xam ne sax yow doo xam lu mu doon mais vraiment man dee dina bettee ak yooyu yëpp dina am mais bii moom c'est c'est c'est foudroyant léegi Malick maa ngi dégg frère bi ak kii ndeysaan oh là là ca yàlla man am na benn jour boo xam ne Babacar mu ne ma man li ma daj bëgguma sama doom daj ko moo tax te dama ma tax ma ñeme liggéey ndax bëgg naa yooyu wax yoo xam ne man yooyu moom a gënoon attiré ci moom parce que je savais que c'est quelqu'un qui voulait faire la différence dans son alentour te def oh laataat merci maintenant ku ne mettiwul li metti na man daal c'est-à-dire angle bu mu parce que dafa bette daal dafa nekk loo xam ne c'est inattendu ñëpp xam ne ne ku nekk di nga dee mais ni mu amee nii moo compliqué man damay ubbi di xool man ne waaye li ma gëjee nekk en ligne pour xool exactement déglu naa xool rek di clic oh là là laay loolu la daal moom daal bi mu xam kan kii bi ma gisee li Malick njëkk bind ma ne laa kii sax du bindu Malick parce que ni mu ko bindee nii xamoo wolof la xamuloo lan la mais du affaire u dee mais bi audio bi génnee choc bi ma am yàlla na gëj yàlla bu mu amati ci ci ci wulala il est parti vraiment à la fleur de son âge yàlla na ko yàlla may mu je ne sais même pas loolu leen di ñaanal parce que lii dafa metti metti boo xam ne tu comprends rien du tout comprends pas ñun ñëpp daal yàlla nañu yàlla ñun daal groupe lañu mais famille lañu en fait aussi parce que lii mooy famille ay nit yu ànd xam nga yéen a ngi ànd ci fu àddina di waxtaan di werante mais taxul kenn bañ sa morom parce que dañu xam ne rek le monde est fait d'un peu de tout ku nekk war nga am ak sa morom courtoisie bi moom rek moo ñu war li ci des yëpp yëpp yëpp ay détail la oh là là maa ngi leen di jégalu leen balu àq parce que vraiment li metti na ma trop waaw metti na ma nag metti na ma wallaay merci d'avoir partagé ça c'est atroce xam naa bu fi defar bagage am yi rek mu fekk ko jam ko ci loos te loos moom buñ ci jamee nit kooku spécial kii la xam nga te ah, loolu metti la la ilaha illallah la oh my god metti na trop merci beaucoup
salaamaaleykum bakar la bakar indo bakar Diouf bakar Sereer bakar bawal bawal siyaar naa leen sëñ Malick Dieng siyaar naa sëñ Jaam Maodo Mandela yaakaar naa wala borom Sonko bi moom kan la song papi sama gaayin siyaar naa la Maodo man no du Maodo Mandela rek est-ce que kii du papa kan borom Sonko bi daal wala jibisi booy bari wala grand bari mbay faylaan siyaar naa leen maa ngi dem ba ci revue de presse siyaar ñëpp rek di leen kontaanaat di leen déglu yéen waa Allo Dakar suñu waa kër sama waa kër suñu njaboot hmm, suñu deuxième famille wala suñu première famille rajo bi ñu toog di fi wétli ko di gindiku li xew ci àddina beeg li xew suñu réew li xew ci jamono yi tey nag ngeen ñëw ci jub benn feet bu am solo man nag tabaski moom mooy sama feet moom tabaski moom wax dëgg yàlla neex na ma lool bu aw ñëwee moom man dama ko jàpp moom dama jàpp ba dama jàpp ñaari feet yoo xam ne moom bu ñëwee moom man man duma ci liggéey moom man moom boobu dippi dippi dippi lu yàgg a yàgg la moom feet yi moom dama koo jël waaw dippi bu ma génnee Sénégal ak léegi daal feet yi moom dama koo jël bu ñëwee damay toog ak fu ma fekk nag moom dama ko signé woon nag dama ko signé woon bu ma fekk dama koy toog feetu ko yëg ne am naa feet feetu tabaski bii ndax neex na ma lool am naa ci nag ak gis-gis ci li Malick grand Malick wax Papis yow ma ma grand Malick laa déglu ba Papis yow déglu ko ma la déglu ko ma la yeneen audio yi mais xam naa damay ñëw rek ne leen feetu taba feet dëkk bu la ci war nga am sa feetu bopp xam na defin wi nag dinaa ci ñëw ndax war nañ gis naa Grand Malick Dieng muy dégg naa Grand Malick Dieng muy wax ne xar yi ñuy jënd ak lañ cay def ak lu ñuy yàq yooyu yëpp am na solo mais dinaa ci ñëw man def ci am jàngat bu ama am solo ci man ni ma ko xalaate man du nag noonu lañ war a def mais man ni ma ko xalaate
asalaamaaleykum Allo Radio Dakar Fatima maa leen nuyu Lay Sarr USA Lay de de nuyu Lay Sarr Lay Diop di nuyu ak ak de les bu baax Modou di la nuyu Gaye Thiam Gaye Ndoye Grand Malick di nuyu tey nag tey moom je pas suma xol neexul quoi ñu xëy nouvelle bi man sama waaw maa ngi jégalu ko xam naa pour ma dugg si panel bi dina dina métti dina jafe trop métti pour ma toog wax parce que xëy ci ba teel wax ñu wàcce nouvelle bi daf ma xaw a surprise noonu daf ma xaw a bett ne mbir yàlla moom kenn mënul mbir yàlla kenn mënul xëccoog moom sa sa loolu la problème bi nag ñaanal ko rek quoi bon ma grand Malick bu fekkee ne mën duma envoyé numéro bi frère am bu nekk Argentine quoi comme ça ma jaale ko quoi s'il te plaît ok merci
waalu salaamaaleykum waaw karamallah ñu ngi leen nuyu baax di leen ziare Maodo di leen nuyu yéen ñëpp Issa Jara sëñ Siri ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di leen ziare Soxna Dia Bara Cissé Maodo Mandela Lay Diop ñu ngi leen di ziare yéen ñëpp Pape Daouda sëñ Malick ñu ngi leen ziare sëñ Modou Samba ñu ngi leen nuyu baax a baax moo di boobu te nuyu leen ziar soxna Soda bi bari soxna Ndeye da leen ziar yéen ñëpp waaw mbir moom tiis na loolu wax dëgg yàlla waxte ki nga xamante ni wax dëgg yàlla moo fi bàyyi ko man day wax dëgg yàlla nit ku rëy rëy rëy la woon ci man ku soroon lool la nag ci sama xol wax dëgg yàlla ndaxte fi ma ko tegit maanaam mooy ak téegoom ak dëggu ak it ay xalaatam xalaat yu sell yu rafet yoo xamante ni day dëppook day dëppook sunu dundin ba pare it eh, mu nekk nit koo xamante ni nan daa xam boppam gëm boppam ba pare xam li mu doon mooy kan ba pare xam fi mu jëm muy lu am solo loo xamante ni da koo boole woon eh, li wolof di wax naan nag cat du wees li moom maanaam cat la daal waaye cat loo xamante ni nii ci boppam yàlla na ci yàlla musal daxal ko bépp doomu aadama te eh, lii moom man wax dëgg yàlla dama doon chaque fois la may tiit ci moom ci xeet yu demee nii waaw ci xeet yu demee nii moom dama ko ci doon tiital lool ndaxte aussi tamit eh, ngóor a gim doon demee ak njàmbaar gi te dëkk yooyu mu nekk eh, ñi nga xamante ni ñoom la fa dëkkal muy nit ñoo xamante ni nit ñu doy waar quoi muy latino yi rawatina les colombiens ay waa Uruguay ay xam nga yu neemit ah ay Bolivie muy ay nit ñu soxor soxor soxor yoo xamante ni nii wax dëgg yàlla euh, nit ku ñuul moom daanaka joxuñu ko bopp dañoo soxor ci nit ku ñuul ba tax na toujours rek di ñaax képp ku mën a doon rek maanaam xeet yooyu di leen moytu def ci am solo daal te Babacar moom wax dëgg yàlla da doon demee ak fitam te am na loo xamante ni aussi tamit eh, nit ku ne war nga koo moytu Eh, di ko ñaanal yàlla nag comme nii la ko yàlla dogale wax dëgg yàlla kenn bëggu ko kenn bëggu ko woon mu demee nii buñ sañoon dafay nekk dund ba xubi daas yàlla may ko li nga xamante ni moom la daan ñaan muy alal ak yooyu yëpp ak dooleeg yëpp rek yàlla may ko ko waaye nag comme ni la yàlla dogalee dañ koy sant yàlla rek te di ko gën a yokk ñaanal eh, ñaanal ak njabootam yàlla teg loxo ci seen ci njaboot gi ndax amoon na ci yéene lool wax dëgg yàlla da leen ko ziar yéen ñëpp ci biir panel bi tout le monde à AZ fàttewuma kenn quoi di leen ziar yéen ñëpp di ko ñaanal rek bu baax a baax a baax a baax wax dëgg yàlla jàmbaar la woon lool. jàmbaar la woon lool te africain pire la woon it te ku bëgg boppam la woon it ku fonk Afrique ku ko yéene woon jàmmale yi tamit ku bëggoon nit ñi dox ci ak nite ndax dëgg yàlla bëggoon na ko lool maanaam nit ñi tegu ci ak nite fonk suñu bopp di demal suñu bopp moo mës a nekk ci moom te man wax dëgg yàlla loolu laa ko nawee woon lool lool lool lool moo tax ay kàddu moom daanaka lu bare bare bare bare bare rëccu ma ci lu bari yore naa ko ci quoi kon ba tax na di ñaan yàlla rek yàlla taxawu ak njabootam yàlla yeggale yéenem ci ak njabootam ci barke borom Tuubaa di leen ziar yéenem jërëjëf Lamine Ba waaleykum salaamaaleykum waaw karamallah ñu ngi lay nuyu baax di leen ziare Maodo di leen nuyu yéen ñëpp Issa Jara sëñ Siri ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di leen ziare Soxna Dia Bara Cissé Maodo Mandela lay jóg ñoo leen di ziar yéen ñëpp ab Daouda sëñ Malick ñoo lay ziar sëñ Modou Samb ñoo leen nuyu baax a baax moo di boo leen nuyu leen ziar soxna Soda bi bari soxna Ndayada leen ziar yéen ñëpp waaw ah mbir moom tiis na loolu wax dëgg yàlla waxte ki nga xamante ni wax dëgg yàlla moo fi bàyyi ko man day wax dëgg yàlla nit ku rëy rëy rëy la woon ci man ku soroon lool la nag ci sama xol wax dëgg yàlla ndaxte fi ma ko tegit maanaam mooy ak téegoom ak dëggu ak it ay xalaatam xalaat yu sell yu rafet yoo xamante ni day dëppook day dëppook sunu dundin ba pare it mu nekk nit koo xamante ni nan daa xam boppam gëm boppam ba pare xam li mu doon mooy kan ba pare xam fi mu jëm muy lu am solo loo xamante ni da koo boole woon li wolof di wax naan nag cat du wees li moom maanaam cat la daal waaye cat loo xamante ni nii ci boppam yàlla na ci yàlla musal daxal ko bépp doomu aadama te lii moom man wax dëgg yàlla dama doon chaque fois la may tiit ci moom ci xeet yu demee nii waaw ci xeet yu demee nii moom dama ko ci doon tiital lool ndaxte aussi tamit ngóor gi mu doon demee ak njàmbaar gi te dëkk yooyu mu nekk ñi nga xamante ni ñoom la fa dëkkal muy nit ñoo xamante ni nit ñu doy waar quoi muy latino yi. rawatina les colombiens ay waa Uruguay ay xam nga yu name it ah ay Bolivie muy ay nit ñu soxor soxor soxor yoo xamante ni nii wax dëgg yàlla nit ku ñuul moom daanaka joxuñu ko bopp dañoo soxor ci nit ku ñuul ba tax na toujours rek di ñaax képp ku mën a doon rek maanaam xeet yooyu di leen moytu def ci am solo daal te. Babacar moom wax dëgg yàlla da doon demee ak fitam te am na loo xamante ni aussi tamit nit ku ne war nga koo moytu di ko ñaanal yàlla nag comme lii la ko yàlla dogale wax dëgg yàlla kenn bëggu ko kenn bëggu ko woon mu demee nii buñ sañoon dafay nekk dund ba xubbi daas yàlla may ko li nga xamante ni moom la daan ñaan muy alal ak yooyu yëpp ak dooleeg yëpp rek yàlla may ko ko. waaye nag comme ni la yàlla dogalee dañ koy sant yàlla rek te di ko gën a yokk ñaanal ñaanal ak njabootam yàlla teg loxo ci seen ci njaboot gi ndax amoon na ci yéene lool wax dëgg yàlla da leen ko ziar yéen ñëpp ci biir panel bi tout le monde à AZ fatewuma kenn quoi di leen ziar yéen ñëpp di ko ñaanal rek bu baax a baax a baax a baax wax dëgg yàlla jàmbaar la woon lool. jàmbaar la woon lool te africain pire la woon it te ku bëgg boppam la woon it ku fonk Afrique ku yéene woon jàmmale yi tamit ku bëggoon nit ñi dox ci ak nite ndax dëgg yàlla bëggoon na ko lool maanaam nit ñi tegu ci ak nite fonk suñu bopp di demal suñu bopp moo mos a nekk ci moom te man wax dëgg yàlla loolu laa ko nawe woon lool lool lool lool moo tax ay kàddu moom daanaka lu bare bare bare bare bare rëccu ma ci lu bari yore naa ko ci quoi kon ba tax na di ñaan yàlla rek yàlla taxawu ak njabootam yàlla yeggale yéenem ci ak njabootam ci barke borom Tuubaa di leen ziar yéenem jërëjëf Lamine Bara
Ah, Grand Malik, la- Lamine Bara, Malaisien. Grand Malik, merci. Merci pour le numéro. Quoi. Ah, Grand Malik, la- Lamine Bara, Malaisien. Grand Malik, merci. Merci pour le numéro. Quoi.
asalaamaaleykum wa rahmatullah Allo Dakar groupe ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di siyaar ñëpp rek ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp di ñëwaat rek di yeesalaat sunum njaal ci groupe Allo Dakar bi yëpp képp ku fi nekk rek sa numéro nekk fi ñu ngi lay nuyu di la siyaar di la jaale li ñu bokk ñun ñëpp mi sunu mbokk moomu di Babacar Diouf Babacar Endo Euh, Imam Malik jërëjëf yow mi ñu indil numéro Ibrahima Diouf feraram bi bañ mën a am accès jot ku bokk ci moom wax ak moom Euh, man yàlla def na léegi laa coupé ak moom jot naa ko ba wax ak moom ci téléphone xam naa ni li ma mën a gëm daal mooy yëg-yëg bi ma ci am ñi nekk ci guddi bi ñëpp yëg-yëg boobu lañ ci am wala bu ko raw moo tax ma ne dinaa leen ko jaale yéen ñëpp parce que fi mu toll ci man gëm naa ne fu ko raw la toll ci yéen kon nag di leen masawu li ñu bokk ñun ñëpp xam ni lii moo soob sunu borom subhaanahu wa taala di waaju baax dem na góor yàlla boroom jom boroom fit boo déggoo ay waxam rek ci groupe bi nga xam ne kii jàmbaar la man nag ay audio jotuma ko garde sama téléphone waaye daan nañ faral di jotante ci suuf ay audio yooyu bu ñu gëj a déggante rek mu woo ma mu a bàyyil ma message wala ma bàyyil ko message Euh, waaye ku baax dem na yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko àjjana yàlla fi mu jëm gënal ko fi mu jógee yàlla na ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dalal fi mu féete woon njabootam yàlla la fa sunu borom féete yàlla saraxam yàgg ci njabootam yàlla defal leen xolu muñ métti wi ak tiis wi defal ñu ko ñun ñi xamante woon ak moom ci groupe bi te groupe bi boole woon ñu. mënuma lim turu kenn ñëpp laa ci boole ndee yëg-yëg gi ba ci am la ci ñëpp am wala bu ko gën a kawe waaye Babacar moom man yàgg ma ci groupe bi loolu waaye dafa bokk ci ñi ma gënoon a ñeme ci groupe bi yaboon ko ndax li mu nekk séeréer mooy tukulóor waaye ànd ak loolu yëpp Babacar Babakaru ñëpp la woon ci groupe bi Babacar non stress ah xam naa daal lu waay bëgg a wax rek xeeb ko waaye wax ji sax mën na safaanoo parce que yëg-yëg yi la ñàkk nañ ku nekk waaye nag ñàkk nañ keneen koo xamee ni kenn la ci groupe bi ku amoon xorom ci groupe bi ku amoon njëriñ ci groupe bi ku doon wax ci ci ci fànn yu bare bare bare bare bare ngay xam ne kii li muy wax da koo xam bari na ci lu muy wax loo xamee lu mu dund la ci lu mu jaar waaye ñaan lañu des ak moom ak it ak njàngat ak njàngat ci ñun ñi des ngum desandu gum ci gannaawam ak orientation fan la ñuy teg suñu tànk ak nan lañ war a mel lu am solo la bis yu naqari yi yu neex yëpp day faral di di ñu gane si waaye bu ci nekk am ndam njàngat yokk ko ñu yokk ko ñaan rek ñu yokk ko ñaan rek ñu yokk ko ñaan xam naa xool yi tooy na lool lool lool lool lool lool lool metti na lool lool lool lool lool waaye nag ñu sante ko sunu borom yàlla mooy def lu ko neex mooy fa alun li maa yurit du tàggu kenn te kenn amul droit ni ko li nga def lu tax nga def ko kon yàlla na ci muñ topp yàlla na foofu di këru noof laayam yàlla na koy yàlla tàggaleeg lépp luy jafe-jafe ak képp ku ko xam ak ku mu xam yàlla na la yàlla tàggaleeg i jafe-jafe yàlla yàlla saxal ñu ci njub yàlla nañu yàlla rey ci islaam yàlla na ko yàlla wan leeg Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam en tout cas xool yi tooy nañ daal xool yi tooy nañ lool lool lool lool lool wasalaamaaleykum wa rahmatullah mënuma lim turu kenn ñëpp laa ci boole ndee yëg-yëg gi ba ci am la ci ñëpp am wala bu ko gën a kawe waaye Babacar moom man yàgg ma ci groupe bi loolu waaye dafa bokk ci ñi ma gënoon a ñeme ci groupe bi yaboon ko ndax li mu nekk séeréer mooy tukulóor waaye ànd ak loolu yëpp Babacar Babakaru ñëpp la woon ci groupe bi Babacar non stress ah xam naa daal lu waay bëgg a wax rek xeeb ko waaye wax ji sax mën na safaanoo parce que yëg-yëg yi la ñàkk nañ ku nekk waaye nag ñàkk nañ keneen koo xamee ni kenn la ci groupe bi ku amoon xorom ci groupe bi ku amoon njëriñ ci groupe bi ku doon wax ci ci ci fànn yu bare bare bare bare bare ngay xam ne kii li muy wax da koo xam bari na ci lu muy wax loo xamee lu mu dund la ci lu mu jaar waaye ñaan lañu des ak moom ak it ak njàngat ak njàngat ci ñun ñi des ngum desandu gum ci gannaawam ak orientation fan la ñuy teg suñu tànk ak nan lañ war a mel lu am solo la bis yu naqari yi yu neex yëpp day faral di di ñu gane si waaye bu ci nekk am ndam njàngat yokk ko ñu yokk ko ñaan rek ñu yokk ko ñaan rek ñu yokk ko ñaan xam naa xool yi tooy na lool lool lool lool lool lool metti na lool lool lool lool lool waaye nag ñu sante ko sunu borom yàlla mooy def lu ko neex mooy fa alun li maa yurit du tàggu kenn te kenn amul droit ni ko li nga def lu tax nga def ko kon yàlla na ci muñ topp yàlla na foofu di këru noof laayam yàlla na koy yàlla tàggaleeg lépp luy jafe-jafe ak képp ku ko xam ak ku mu xam yàlla na la yàlla tàggaleeg i jafe-jafe yàlla yàlla saxal ñu ci njub yàlla nañu yàlla rey ci islaam yàlla ko yàlla wan leeg Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam en tout cas
xol yi tooy nañ daal xol yi tooy nañ lool lool lool lool lool wasalaamaaleykum wa rahmatullah
waaw jiw maa ngi lay ziar bu baax waaye di la gërëm di la ñaanal yow tamit yàlla defal la jàmm defal ko waa forum bi yëpp te ñaan yi nga ñaanal Bakar yàlla na àgg ci moom te yàlla ful ko yóbbu ko ca àjjana yi gën a kawe. man bi ma yëgee gaañ bi du ma la ko nëbb wallaahi yow laa njëkk a xalaat Babacar Poutine yow yaa ko ko doon wooye Babacar Poutine Babacar Poutine yéen ñaar bu ngeen dajee ci ci forum bi da ngeen di mel ne comme grand doy ak euh, ak Alioune Mbengue donc yow moom sam Babacar a sa Babacar Diouf sa ba sam Babacar Diouf Babacar Endo Babacar Poutine ñu ngi la koy jaale bu baax a baax a baax ñu ngi la koy jaale yàlla bàyyi la fi yow tamit nga ko ñaanal ci daraje yonante bi sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf
waaw salaamaaleykum waa Allo rajo Dakar man la Louga Grand Marat de Paris maa ngi leen nuyu ku nekk ci turam ak santam léegi laa dégg nouvelle bi nouvelle bi metti na xol tooy na ci Babacar Endo waa ju am Pastef mais yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla yërëm yàlla jéggal ko ay bàkkaaram yàlla na suuf oyof si kawam. fi mu jëm yàlla na gën fi mu jógee ñun ñëpp fi des tamit yàlla ñu rey yàlla nañu yàlla rey ci kaw diina maa ngi jaale képp.
asalaamaaleykum wa rahmatulah waa groupe bi ma duggaat rek di leen ziare baax a baax di nuyu lukk ma fekk te grand Malick Dibis commune Baara Moussa di yeesal suñu njaal rek. vraiment comme ni nga ñëpp waxee rek daanaka bu kenn waxoon rek mën naa waxaaleel groupe bi yëpp yëpp yëpp loolu moom aguma ci yàqin ndax yéen a jëm ci nit ñi am ci moom ak triste ci gam diggante démb ak tey waaye nag yàlla moom lu ko neex rek la xam waaw yàlla ku neex lu ko neex rek rek rek la xam xanaa di leen ko gën a jaal yéen ñi nga xam ne yéen a gannaaw yàlla yéen a tax ñu xamante ak moom déggante ci kàddu ba miinante ci kàddu mosuñoo gisante waaye wax dëgg yàlla te gu ne am na de waaye lii moom marqué nañu lool lool lool ndax xam naa yëg-yëg bi ma ci am la ci keneen yëg ndax yàlla jàmbaar la woon bookaa li ñu mu jox ndeysaan ci biir groupe bu waxee naan jànguma ne ko Babacar bàyyil ni jànguma jàng ak xam-xam xam-xam yàlla koy def ci nit te fi mu toll lu mu fi wax amul keneen ku ko jàng ba yéeg kenn mënu koo teggi ci ay analyse am ak yëpp am na bu fi sëtu nit ku baax dugal sànq analyse yi mu doon def macha allah yal na ko yàlla bu ko cat jiitu yu bàmmet yal na dee di nopp looyam jërë ngeen jëf yéen ko jaaleen ñëpp waaw ñu masawu yéen ñëpp ñëpp bokk ci waaw xanaa dee nii rek niñ rayeen gi daal moo ci métti waaye dee moom du jaas waaye nag wax dëgg yàlla di ci jiyaat la dee kuy wut loo jox sa njaboot bañ rey la ci waaw dee na ci jiyaat yal na ko malaaka mi yërmande teeru jaay Seydina Muhammad yéen ko jàllal yéen ñëpp jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatulah waa groupe bi ma duggaat rek di leen ziar bu baax a baax di nuyu lukk ma fekk te grand Malick Dibis commune Baara Moussa di yeesal suñu njaal rek. vraiment comme ni nga ñëpp waxee rek daanaka bu kenn waxoon rek mën naa waxaaleel groupe bi yëpp yëpp yëpp loolu moom aguma ci yàqin ndax yéen a jëm ci nit ñi am ci moom ak triste ci gam diggante démb ak tey. waaye nag yàlla moom lu ko neex rek la xam waaw yàlla ku neex lu ko neex rek rek rek la xam xanaa di leen ko gën a jaal yéen ñi nga xam ne yéen a gannaaw yàlla yéen a tax ñu xamante ak moom déggante ci kàddu ba miinante ci kàddu mosuñoo gisante waaye wax dëgg yàlla te gu ne am na de waaye lii moom marqué nañu lool lool lool ndax xam naa yëg-yëg bi ma ci am la ci keneen yëg ndax yàlla jàmbaar la woon bookaa li ñu mu jox ndeysaan ci biir groupe bu waxee naan jànguma ne ko Babacar bàyyil ni jànguma jàng ak xam-xam xam-xam yàlla koy def ci nit te fi mu toll lu mu fi wax amul keneen ku ko jàng ba yéeg kenn mënu koo teggi ci ay analyse am ak yëpp am na bu fi sëtu nit ku baax dugal sànq analyse yi mu doon def macha allah yal na ko yàlla bu ko cat jiitu yu bàmmet yal na dee di nopp looyam jërë ngeen jëf yéen ko jaaleen ñëpp waaw ñu masawu yéen ñëpp ñëpp bokk ci waaw xanaa dee nii rek ni rayeen gi daal moo ci métti waaye dee moom du jaas waaye nag wax dëgg yàlla di ci jiyaat la dee kuy wut loo jox sa njaboot bañ rey la ci waaw dee na ci jiyaat yal na ko malaaka mi yërmande teeru jaay Seydina Muhammad yéen ko jàllal yéen ñëpp jërë ngeen jëf xanaa di nuyu Laye Diop rek di ko jaajëfal moom ci information bi leeral gi ñu indil ci deeñ gi loolu it xam ko da ci dana wàññi benn seize bi loolu ci jaajëfal bu baax ci information it ak jàllal ñëpp rek yàlla may fanaan jàmm xanaa di nuyu Laye Diop rek di ko jaajëfal moom ci information bi leeral gi ñu indil ci deeñ gi loolu it xam ko da ci dana wàññi benn seize bi loolu ci jaajëfal bu baax ci information it ak jàllal ñëpp rek yàlla may fanaan jàmm
asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm yàlla nañu yàlla sàmm amin yaa Aja maa ngi lay nuyu di la masaw di masaw groupe bi yëpp dañu ci teg sëñ Ahmed Mbuub ñu ngi lay ziare Ahmed luko luko Imam Malik liggéey bi am na solo ñu ngi koy ñu ngi koy rafetoo ak sëñ Jibi Si sama xaafis Isa Jakit maa ngi lay ziare laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah Alioune Beng maa ngi lay ziare ak Mohamed Maodo Mandela ak sëñ Sidi Ñang maa ngi lay ziare bu baax a baax sëñ Bare Cissé maa ngi lay masawu yow it sëñ Lay Diop nga ñu wàccal am na solo information yi ñu nekk au diapason soxna Fatima ñu ngi lay ziare namm nañu la ak sëñ Modou Samb sëriñ ñu ngi lay ziare Seck seet no def ak Mody Bo ñu ngi lay ziar waaw defe naa foofu baax na ma jox ko jaamu yàlla rek mu yéegal ko ba ci kaw a kaw asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm yàlla nañu yàlla sàmm amin yaa ja maa ngi lay nuyu di la masawu di masawu groupe bi yëpp dañu ci teg sëñ Ahmed Mbuub ñu ngi lay ziare Ahmed luko luko Imam Malik liggéey bi am na solo ñu ngi koy ñu ngi koy rafetoo ak sëñ Jibi Si sama xaafis Isa Jakit maa ngi lay ziare laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah Alioune Beng maa ngi lay ziare ak Mohamed Maodo Mandela ak sëñ Sidi Ñang maa ngi lay ziare bu baax a baax sëñ Bare Cissé maa ngi lay masawu yow it sëñ Lay Diop nga ñu wàccal am na solo information yi ñu nekk au diapason soxna Fatima ñu ngi lay ziare namm nañu la ak sëñ Modou Samb sëriñ ñu ngi lay ziare Seck seet no def ak Mody Bo ñu ngi lay ziar waaw defe naa foofu baax na ma jox ko jaamu yàlla rek mu yéegal ko ba ci kaw a kaw. waaw di masawu waa forum bi yëpp yëpp yëpp sëñ Lamine Baara maa ngi lay seen yaa ngi ñëw boo ñëwee jël sa nuyoo di masawu ñëpp vraiment c'est très dur c'est très très très dur man de sama waay yi man lii ni ma defee choc xam nga ndax noonu la leen defee choc quoi man yëguma ko woon Imam Malik moo ne ma xanaa yëgu loolu xew ma ne ko lu xew mu daal di ma koy yegge depuis lors man xam ma te dem loolu suma anniversaire allahu akbar anniversaire bi moom dootuma ko fàtte moom Babacar dem na bàyyi nu ñu waaju jàmbaare waaju jàmbaare comme ni ma ko waxee démb foo ko fekk ñu ngi yëngatu déparé ko nag Sénégal ci yàlluuma ya bu lay nettali ni mu doon def yoonu Gàmbi bi jaww ba yootu donc ku yàgg ñafe la ku yàgg ñafe la ba ci Argentine bi kenn du ñu ko nettali gis ngeen ni ñu muy def buy dugg ci forum bi ni muy def de luuma ak luuma marché bu nekk awakat taxaw na fa pour am lu mu dundalee njabootam pour mën a tekki un homme très wise, un homme très euh, cultivé aussi, très très cultivé, intelligent. man moom defe naa man relation bi ma amoon ak moom ñëpp xam nañ ni mu doon wo ni ñu doon wootente sama gaayen sama gaayen papis ma ne ko sama gaayen Babacar donc léegi nag daan nañu mu ngi jàng ci lii léegi qu'est-ce qui va se passer
salaamaaleykum wa rahmatullah